jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi ànd ak solution TV ñi leen di jaajëfal bu baax amaat mbégte mu rëy ak contentement ci ànd ak yéen xam ngeen ko niñ koy defee lépp loo xamante ni eh, xew na rek ñu ànd ci ak yéen rawat lii nga xamante ni mooy eh, bisu yonent bi ñu dëgmal nekk ci weeru yonent bi eh, waaye nekk it ci lii nga xamante ni boog mooy gàmm gi ci gàttal moom la ñu fas yéenee waxtaane waxtaane nag dinañ ci ànd ak ñoo xamante ni yaakaar naa ni lu ngeen gàtt dégg-dégg dégg ngeen seeni i tur seen gis-gisit lu mu gàtt gis ngeen leen ñu nekk si njàngalem yonent bi waaye njàngalem sunu mag ñi ak alquran li nga xamante ni mi ngi koy digle si ab jullit loolu yi la ñu nekk muy oustaz Souleymane Diaw dëkk fële sa kees waaye nekk fii si télé fii so wala boog rajo wal fajri di fi liggéey liggéey bu ama ama ama am solo feggoog yaa seyda ñu ngi koy siyaare bu baax a baax a baax a baax xam naa yaa sayda dinañ dikk ci moom it ci ay waxtaan yoo xamante ni fas yéene na ko waxtaan ak ñun ak it njàngaleem yonent bi ak jigéen si société bi ak it gàmm gi nga xamante ni moom lañ dëgmal fële sa Tiwaawan ak it soxna yi nga xamante ni dañ leen a war a roy naka lañ leen war a royee loolu lépp incha allahu rabi dinañ ci dikk ak moom waxtaan ci ak moom bu baax a baax a baax incha allahu rabi ñi amee initiative bi. alhaaji saa njoogu mbeng sohi bu Jóob sëriñ Fàll gumba la si xarale gi ñu ngi lay nuyu oustaz Souleymane émission bii ñu jagleel yonent bi ak gàmm gi comme ni ñu ko defee si màgg gi defee ko nii si gàmm gi suñu xel nag dajul kenn ku dul yow ñu fas yéene waxtaan ak yow si yonent bi kan mooy yonent bi sunu mag ñi ndax ñi ngi ni tiwaawoon sunu mag ñi naka lañ taxaw woon ci yonent bi ak gàmm gii nga xam ne ñu ngi koy defal julli yëpp di ko def fu nañu daa wuti fa ndax biddaa la ak du biddaa yooyu yëpp incha allahu rabbi dinañ ci dikk waxtaane ko bu baax a baax a baax ak loolu lan la mën a def ci jullit bi def pas-pasam góorgóorlu bay bëgg a dee ñu ne ko lii ngay góorgóorlu biddaa la loolu euh, lan la mën a def ginnaaw ba nga nuyoo ba pare alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa majjada wa karrama ala xeyri xalqi muhammadun miftaahul xataaya wa nurul ijaabati wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bàyyi Assane Mesere ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di am mbégte ak contentement di feggoo ak yow macha allah di nuyu baax Seyda Zeynab Fall di ko nuyu moom di am mbégte contentement ci bokk ak moom plateau bi tabaarakallah Baye Assane. Euh, mm-hmm. euh, euh, dugg nga fu rëy nag. dugg nga mm-hmm. dugg nga ci ku rëy. Mm-hmm. la ci koo xam ni yàllaa ko màggalal boppam mm-hmm. muy sayduna muhammad mm-hmm. alayhi salaatu wasalaam macha allah eh, muy koo xam ni du jeex koo xamante ni macha allah ñi fi giitu woon wax nañu dañu xam lépp wax nañ ko mu teewul mu des rek ñi mu tombaleen jamono wax nañu la xam lépp wax nañ ko teewul mu des. Mm-hmm. waaye bi mu fi jógeet boobu ba tey ñu ngi wax. bàyyi sax ndeysaan te ñun ñi ci waxee dañuy dem ba kenn dootuñu xam ni sax jaaroon nañ ci àdduna. teewul turam di continuer di dem. Mm-hmm. Mm-hmm. kookoy sallallahu alayhi wa sallam. ah nga dugg ci ay point yu doy waar yoo xam ni. incha allah bu ñu dee ba ci kanam. Ah, nañ ci def suñu kéem kàttan rek nafar. ndax suñuy sëriñ rek ñoo ñuy déglu damay wax ni eh, kii wax moom ki koy dégloo ko def nit. waaw kii wax ki koy dégloo ko def nit rawatina nag dëkk bi di Sénégal.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 ama baad mbokk jullit yi mbokki taalibe yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu su nuyu bu ñu yàlla booleel muy asalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu gannaaw bi ñu sante yàlla nag julli su yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi nekk ci biir réew mi waaye di leen ñaanal gudd fan ak wér waaye noonu la ñuy dem ñaanal ñi nga xamante ne ñoo tëdd ca lalu hôpital ya yàlla fëgg seen bopp te bañ a tëddal kenn waaye ñi nga xamante ni nag caabi da leen a féetee ginnaaw ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu génn ci xat-xat yooyu ñu nekk ba nekkaat ci seen i activité fa tabarakalaahu noonu la ñuy def dem ñaanal sama way jur bu jigéen yàlla may ko gudd fan ak wér moom Fatou Cissé waaye di ñaanal sama wayjur bu góor fu mu tëdd yàlla na ko fa malaaka yërmande fekk ak bépp nuyu julit bu tëdd foofu waaye di nuyu Oustaz Souleymane ak Assane bu baax a baax ci invitation bi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaye di nuyu bépp mbokku téléspectateur ak téléspectatrice yu toog jàkkaarloog ak seen solution TV macha fas yéene waxtaan ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam jikko yu yu rafet yi comme ni ko oustaz di waxee à chaque fois jigéen nag naka la war a nekkee euh, ci ci ci naka yan jikko la jigéen war a am ci société bi loolu yëpp incha allah dinañ ko waxtaanee fii ak si kanam tuuti kon Assane kàddu yaa ngi. waaw yaa say nga kër gi moom day seen kër. Uh-huh. ngeen bokk ci kër gi di doxal lu am solo ci biir kër gi. ñu war a waxtaanee yonent bi uh-huh. xalaatu ñoo dem di wëri ñeneen te ñu ko mën nekk ci biir kër gi. Uh-huh. doy ngeen si sëkk waaye bu fekkee ni yaa ngi wax. Mhm. maam sa wax neex ma mi ngay sa kàddu neex ma maam dugg ma. waaw loolu naa si am bàkkaar wala. <laughs> saa na waar de. doy na waar de <laughs> am naa baax de. <laughs> Ah, ah. na ma de loolu baa nu mu si am ay caw. waa xam nga Assane. Hmm. Euh, tabaarakallaahu euh, Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si almaktoum. Hmm, hmm. dafa ni gars yi jigéen ñi bàyyi leen ñu tay siir waaye. bàyyi leen ñu tay siir. ndax bu ñu tay siirul rek taasu. wallaay ndeysaan waaw xam kooku dafa bëri dégg. man nga dëgg de <laughs> bu ñu tay siirul taasu. Oh, ba ñu xañee ba ñu ni bu ñu tay siir. ña ngay taasu taasu mu taasu mu mel ni tulleeg man la. yaakaar naa ni boo ko su di fecc fecc mu bon. waaw am ko moo taxit kon nañ leen bàyyi jamono. jamono moo leen wax loo. Mhm. waaye nag bu dee da nga ko teg parce que lii borom xam li ñu ci wax dafa doy waar almaratu kullu awra la ñu wax. maa dal wajha wal kafay mhm. jigéen léppam awra la. Oh, ba mu des xar kanamam ak tenqam. Mhm. xam nga loolu la ñu wax waaye jamono toll na foo xam ne ñoom ñoo mën a wax ak seen i morom yi. kon su boobaa nag bàyyi leen ñu wax day daal di wax. dëgg la waaw. xam nga xam naa wax lu am solo ndax fi jamono toll nii. maanaam jigéen ji góor-góor dem di jàngi. Mm-hmm. xam di xamle. nga xañ ko loolu kon daanaka dutuñ ci am cawarte te ñoom dañoo war a xam seen diine bu baax a baax. te jigéen ñi su demee ni son yi bu jóob. Mm-hmm. Eh, am na yaa yaa sayda bi nga mm-hmm. xamante ni moo génn àddina. da ko daa da koy teg bari daal mu jàngal ko lu bëri def ci moom lu bëree baree bare naan ah. soo bu sama soppe nga ak ñeneen ak ñeneen ba fi mu ne nii sax jóge na fi mais ay góor ñoo ko organisé di ko defal ab bis nga xam ne am njàngale la daan jàngale góor ñi di si mhm. jariñu jigéen ñu di si jariñu kon boo leen xañee loolu mhm. xañ nga société bi loo xamante ni tey jii mhm. waruñu leen koo xañ xam nga Baye Assane ki nga bëgg ñu waxtaane ko tey muy Seydina Muhammad alayhi salaatu kenn dafa xamul lu mu doon rek ndax yàllaa ko tànnal boppam ba pare defal ko boppam première moom rasulillahi yenent bi day jàngale ñu baal maa ko ci kàddu gi beeg si ci di jàngal benn si ndaw pëyu jigéen pëy hmm. awra jigéen hmm. fi tax ñu naan kumba hmm. Seydina Muhammad am kersa ci ndaw ñu muy jàngale kersa laa wax de ndax nag jëmmul xayaa yi fa mal azraa tudrikuhu moom Seydina Muhammad asan booy wër kersa boo ñëwee ba ci yonent bi dangay ngay taxaw yonent bi mooy jëmm ji nga xamante ni kersa ci moom la yem. jigéen ñëpp boo leen dajalee ka ci ëpp kersa yonent bee ko ëpp kersa. Mm-hmm. moo tax mag ñi ni ci alxaaji Malick ni kersa yonent bi egg na ci jigéen ju ndaw ju am 15 ans mosul gis góor ñu xëy war koo may jëkkër jëkkër ji ñëw di ko seet si maanaam ki ñu ko war a may. Mm-hmm. ñëw di ko seet si mu ni su duggee ci saal bi toog bi muy toog. ndaw su jigéen ci kersa gi muy am pour xool ko. Mm-hmm. nee na kersaam googu muy rus di ko xool yonent bee ko kersa. sallallahu alayhi wa sallam. bàyyi ak dégg Assane. maa ngi dégg. yonent bi naan ko faraj di ko wax pëy ndaw si xamul luy pëy. Aysatu moo mujj jël loxoom. Mhm. teg ko ci kaw pëy ndaw si ndaw si yuuxu mu ne ko lii lay wax ak yow. moo tax ma ne la. Mhm. am na foo xam ni jigéen ñi. Mhm. ñoom rek ñoo mën a toog waxtaan ak seen moromu jigéen. ku leen ko xaj nag def nga erreur. jamono dañ koy dégg te lii ne dafa wax ni uddu booy woote ci lislaam wooteel ila sabili rabbika bila xikmati wal mawidati al xasana wooteel ci intelligence wooteel ci communication pour nga mën a wax ak askan askan wi mhm. Baye Assane am na solo noo dégg li oustaz wax bala ñoo dugg nag si waxtaan bi macha allah dafa wax lu am solo loo xamante ne nii ah dañ ko war di jëfee mhm. comme ni ñu wax rek jigéen ah, bàyyi nañ ko mu wax waaye tamit pour mu jàngal moroomu jigéenam la parce que boo seetee euh, euh, fu mu toll nii ñu bëri dañoo réer te foog ñu am seen moroom bu leen di gindi teg leen si yoon ba nga xamante ne ni du ñu réer wala seen mbokk meneen bu réer ñu war koo mën a teg ci yoonu siraatal mustaqim bi. Mm-hmm. loolu jàngat boobu daa ci am. jàngat boobu nga ci am. Mm-hmm. Euh, ustaas. Mm-hmm. lii nga xamante ni di julli yëpp ngi xëlëf xëlëf yi. ndax gàmmu gi. <laughs> waaw guddi yonent bi. waaw léegi. am na ñu taxaw daal daal loolu maam bisam bu dellu si la rek waaye waruñu fee nekk di ko defal ay gàmmu waaw ak loolu daal bi daal ndax yonente bi mu bàyyi fu woon yii mhm. lan moo tax ginnaaw bi ñu ko fiy def ba mu jaral ñu xëlëf-xëlëf ju metti ji wallaay ndeysaan ak yeneen ak yeneen wallaay ndeysaan Baye Assane mm. Seydina Muhammad wa sallam jarul kenn du ko yëkkati daa yëkkati ko ba pare mm. waaye ñi bëgg egg ci yàlla ñëpp xam nañ ñu pour ñoom ñu am cër ci moom mm. dañuy yëkkati yonente bi pour ñu am cër si yàlla waaw mais yonent bi sàkkul ñu yëkkati ko de moom yëkkati ko na ba pare <laughs> yow mi bëgg yëkkati ko merci yow mi koy wax di yaa ko yëkkati ah. yow yaa yëkkati ko gisoo alaaji Malick fu ñu toll naa alaaji Malick alaaji Malick lan la bokk ak yonent bi limal ay maamam ba xam di dajeek moom ci yonent bi Serigne Touba lan la bokk ak yonent bi limal ay maamam ba xam di bokk ak moom yonent bi mhm. waaye dem na ba jaxasoog rasulullah sallallahu wa sallam góor gu tëdd waaw ñu sunu mag ñi sunu mag bu ñuy wax VIP dëgg. Mhm. VIP boo ko dee wax neel Seydi Hadji Malick. Mhm. ñoo ñooy VIP. boo naan VIP neel Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul. boo naan VIP neel baam maam Ibrahima Niass. Baay Niass. Mhm. maam Khalifa Niass. maam Limaamul Mahdi. man ñu tedd ñi ñu am Baye Assane. ñoo yor yëf yi. waaye sénégalais dafa neexut a waxal. Baye Assane xool lu toll ni gàmm. lu toll ni mawlidu rasulillahi alors day wax ni Baye ki la jiwal sa tuñu kaw ba bu jamono mbooyee dikkee sow tuñ xotteekuwul boo faloo fàtte ko doo gor Baye Assane ku tax ñu am ñun kan moo tax ñu am looloo jara lijjanti mhm. imaam Busayri nee na xafatte kulla maqaamin ya rasulallahi bil idafati mhm. ñi fiy tiitaru ñëpp di wut bës di jaay jaayu bës imaam bu nee na yonent bi da leen a rabaissé mhm. nappaaje leen nappaaje leen yëkkati leen ba ca kaw duma leen ci suuf. laayal abraha. laayal abraha. ñi fii rëy rëy laa la ba ah. sax. Seydina Mohamed di leen yëkkati ba ci kaw. Mm-hmm. dóor ci suuf nappaa di leen doxi soxla te xam nga lu ci neex. Mm-hmm. yàlla naan ko <laughs> ah, yàlla di ko applaudisé moom rasulullah naan ko c'est mm-hmm. dinaa la wax dinaa la wax dinaa la ko fan la waxee c'est imaamul Buseyri bi ngay dégg. imaam Buseyri bi ngay dégg. daa mel ne la woon de. kii la imaam Buseyri kenn du ma Mbaye Assane. waaw 608 la. Mm-hmm. juddu boo ko toppee ci hijriya. Mm-hmm. miladiya nag nga topp ko mu judd 1213. Mm-hmm. du sénégalais égyptien la. Sénégal gépp Assane. guddi yi bu jotee fu jàkka yi topp mawlaaya salli wa sallim daiman abada ala habibika xayril xalqi kullihimi mu lay neex loolu day am mu lay naqari loolu day am te imaamul Buseyri dëkkul Sénégal. waaw Assane suñu mag ñi fan la ñu jëm ak ñoom. bu bi ngay dégg. ñu bari foog nañ ñi Mawlaay ji Alaaji Maalik ko ko bind bindu ko. ah bindu déedéet. Alaaji Maalik bindul Mawlaaya salli wa sallim daayiman abada bind ko. déedéet Mouhamadul Buseyri moo ko bind. Mm-hmm. Seydi Alaaji Maalik di ko xool di liir ay téeréem. Mm-hmm. plus de ay siècle yu baree bari Assane dox na ci diggante Alaaji Maalik ak Buseyri. Mm-hmm. juróom-ñetti siècle dox na ci. ku judd mille deux cent ak ku judd mille huit cent sori na kii mille deux cent la judd kii judd mille huit cent cinquante cinq Seydi Hadji Malick gis li bu seyri yi wax hmm. Seydina Muhammad loolu piqûre ko Assane dootu hmm. hmm, ko mu ni kii daal sama nawle la oh, waaye Sénégal nañuy defante lu baax waaye iñaanante bi nañ ko bàyyi waaye ñunu saas yi nañ bàyyi iñaanante bi gàmmukat yi nañ bàyyi iñaanante bi. chauffeur yi nañ bàyyi soxorante bi. ñu ne ci télé yi nañ bàyyi xoola amul solo ki gën ñëpp a la guddi ñu toll. Mm-hmm. Assane mbaa yëg nga ni weer wi kenn warta mer. kenn warta xuloo. Mm-hmm. kenn warta kenn warta histoire. Mm-hmm. wa amun summa shaarun summa yowmun ataa fii xudaa xarnul xuróoni weer at mi mbégte la ba mu juddoo moom nabi weer wi mbégte la bis bi mbégte la moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa dama ne la alaaji Malick ni mu mel ba yéem la Seydina Mohamed la xamuloo lool. Mhm. moo ko defal promotion. ngay ndeysaan Serigne Touba ni mu mel ba yéem la asan rasulilaay la. ndeysaan maam Baye Niass mi ngay dégg maam Khalifa mi ngay dégg loolu ñu am loolu lépp ñoom dañoo présenté ni yonent bi mooy waaji yàlla may leen cër bi mu leen may. Mhm. waaw léegi nag comme yonent bi nag moom la ñu joxoñ moom. yàlla may leen cër bi mu leen may. dafa war nag gàcce ngaalaamaa ci ñun. boo déggee nag ku naan nag kuy attaqué nag suñu mag ñi. ci gàmm yi ñu ñuy woote ak màggal yi. Sénégal bu amuloon gàmm amul màggal du saf xorom. dëkk bu dëkk bu lewet lay doon. mi ngi mel ni sombi bu amul dara. mi ngi mel ni sombi bu amul dara asam. amul soow amul suukar amul xorom. amul soow amul suukar amul xorom neexul. ñorul ñorul. ndeysaan tubaab yi fexe nañu ba bal bal bal. mu mm. ëpp taalibe ci àdduna mbaa xam nga ci loolu. bal mm. waaw bari taalibe jarul tiitaroo de bal ëpp ñëpp taalibe bal mooy yi ñu wér bal bal bal bii bal bii Messi di jàpp di dugal nu mu ko neexee kuy ëpp taalibe moo la ëpp taalibe ci àdduna ñu ngi ci daf mi daaw rek déggoo ma de parce que ñii tiitaru ñii tiitaru di wut ñëpp mm. ku la ci jaay maanaa ne ko bala la ëpp taalibe asan déggoo ma de mm-hmm. ñëpp mm-hmm. ku la ciy jaay tiitar ne ko bal moo la ëpp taalibe mm-hmm. kenn ëpp ñëpp taalibe sut ñëpp dépassé ñëpp moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Assane ki nga woote moom la Cheikhul Khadim wax wax ju rëy ja dafay xool yonent bi mhm. moom Serigne Touba mhm. dina ñëw ci jikko de mhm. day xool njool màkk ba ci yàgg parce que bul fàtte ni Cheikh Ahmad li mu am lépp rasulilaay la li mu am lépp Serigne Touba li mu am lépp Assane Serigne Touba laa ne la li mu am lépp Seydina Muhammad moo ko ko jox waaye yow nga bëgg a toog fii da nga koy soxore da ngay tardé <laughs> loolu sax da ngay tardé da ngay tardé yow sa temps bi kan nga jël Serigne Touba ngay attaqué. yow ah. bëggoo avancé. Hmm. Serigne Touba ngay attaqué. Hmm. ki nga xamante ni dafa xool njol màkka ni ko anta yow kase. yow kot hmm. yow dong. yow rek alkarimu yaa tedd. la ilaha illallah Seydina Muhammad ni tekk di ko xool xam nga sax lu mu ko ditalal ni ko dama bëgg nga acceptel ma yow yonent bi ni anaal xadimu man rek maay sa serviteur Sëriñ Tuubaa mel ni ku comprendre ni yonent bi da koy bëgg wax ni pour ma si pour ma d'accord ni yaay sama mbindaan yow. Mhm. Sëriñ Tuubaa gaaw ni ko dëhëran uddi mu. sama dund kii. Mhm. jaayante naa koog yow. damaa fos yéene sax fii ka ci yow rasulaay sanaa i ma lay tagg tagg koo xam ne du am àpp. déedéet. al dugg Cheikh Ahmad Bamba nag xaadimu rasul al bu rëy dugg ko moom Serigne Touba góor gu tedd gi ñii la ñu am asan ñii ku leen bëggul sa sa affaire la mais ñun banoon ñu bëgg leen góor gu tedd gi mm-hmm. daal di jékki-jékki ni dem mii xool asan baat bi waalii mm-hmm. wa awlaadi ñu ni ko naa Mbàkke mu ni fi la mm-hmm. asan <laughs> déggoo ko de Cheikh Ahmadou Bamba laa la wax de <laughs> dammi dam mi hmm. Sëriñ Tuubaa nee na sama sama deret di daw sama yaram. Hmm. kenn moomu ko ku dul rasuulullaahi. sallallahu alayhi wa sallam. Chamat Bamba laa lay wax de. Mm-hmm. Sëriñ Tuubaa nee na dammi sama deret ji man xaadimu rasul. deret ji daw sama yaram kenn moomu ko ku dul Seyduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ñu foog ni foofu lay yam. Mm-hmm. boppam lay wax Sëriñ Tuubaa ni déedéet eh sëñ Moustapha Mbacke. Mm-hmm. sëñ Fallou Mbacke. sëriñ Soye bu Mbacke. sëriñ Murtada Mbacke. sëriñ Bassirou Mbacke. sëriñ Abdoulaat Mbacke. sëriñ Saliou Mbacke. ñoom ñëpp dajale naa ko yonent bi dajale naa leen dajale naa ba ñu dajaloo. ñoom sama njaboot jëlal yow rasulullahi. sallallahu alayhi wa lii la wax de. dam sama deret ji daw ci man. yaa ko moom yow rasulullahi wa lii mbooleem ku naan dangaa bëgg Touba dangaa bëgg Serigne Touba Serigne Touba nee na man jël naa la yow ndem sa bëggeel ci man dëgg la ak sama njaboot gi dajale naa leen ba ñu dajaloo jox rasulullahi asan sëñ Touba laa lay wax de góor gu tedd googu nanga ma wax nag li mu dese yow li mu dese nanga ma ko wax ñu foog ni foofu la yam mu ni wa awlaa di njaboot gi mm-hmm. yow yonent bi def naa ko njotee naa la ko fi ñu foog ni fa la Serigne Touba di yéen mu ni ko xam nga lu ma bëgg ab dan rek ab dan xadiman muskaana lii sanada ab dan rek bëgguma lu dul nekk sa jaam xoolal ma ji wax ju tedd ji nga xam ni moom la suñ maam Cheikh Ahmad Bamba jël jox rasulilaay ni ko yaa ko moom jël léppam jox yenent bi Seyda waaw ku tedd kii jël léppam jox rasulilahi alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. bay asan sëñ Tuubaa wax moo wax moo ñëwaat rek ci mbokkam mi mhm. dinaa la bàyyi Seyda ba pare. bàyyi Seyda nga noppalu. door a ñëwaat nag ci mbokkam mi door a ñëw ci mbokkam mi nag. alhamdulilah bàyyi sa. <laughs> yaa Seyda. waaw. macha sunu sunu yonent bi. Mhm. ak jigéen. Mhm. loo ñu si indil. macha allah euh, am na solo loolu. fi oustaz daanelee rek. Eh, oustaz. foofu laay bëgg yëkkatee. Mm-hmm. ndax yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ba ko yaay Amina ëmbee 9 mois. Euh, weer bu jot rek am yonentu yàlla bu ñëw oh, euh, di ko ndokkeel di ko ziar xamal ne ko moom mu ëmb gën gi mbindeef waaye keroog ba neuf mois yu matee nag ah euh, tegal benn fan ñaari ah. fan ñetti fan ba ca fukki fan ba fukki fan ak benn ah. ci fukki fanu ñaar ya ci bësu altine altine ci suba ci altine ci ngoon waaye altine tamit ci guddi ci la sangu sangu bi tàpp biiru yaayam ne ko man la Muhammadu Rasulullah tey laay gane si àdduna <laughs> allahu akbar yaay Amina daal di sekki tànki ndeyjoor mu daal di dis gann mu sekki tànki càmmoñ mu daal di dis gann mu daal di ne groupe sukk jumbax bi daal di fettax dali fële yonent bi sallallahu alayhi wa dal daal di jaar ci jumbaxu yaayam daal di judd jàkkaarloog penku faranku laay ne nii loxo ba ca kaw allahu akbaru kabira walhamdulilahi kasira wa subhanallahi wa bukuratan wa asila laa ilaha illallah waaye yaa oustaz keroog ba yonent bi salallahu alayhi wa sallam juddoo yaay amina nee na soxlaatul taal lamp soxlaatul taal sondeel ndax leeru yonent bi salallahu alayhi wa sallam leer ga dem na nag ba xajatul ca néeg ba leer gi daal di bëtt néeg ba utali asamaanu juróom-ñaar taseeg biddéew bi ñuy wax mustarix ah ba mu taseeg biddéew ba nag daal di ramaase leer biddéew ba jëm ak moom asamaanu juróom-ñaar wax yàlla nga naan allahu nuuru samawati wal ardi mhm. masalu nuurihi kamistatin fiiha misbahun al misbahu fi zujaajatin zujaaja ka annaha kawkabun duruyun macha allah kooku mooy gën gi mbindeef kooku mooy borom barrière ori waaye tamit uh, li ñuy wax uh, ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ak ak jigéen mhm. ah ni soxna Xadija mi nga xamante ne nii uh, mhm. soxnaam la woon macha allah mu nekkoon soxna soo xamante nii soxna su am daraja la soxna su taaru woon la waaye soxna su am recherche la woon nekkoon commerçante bu mag euh, fële ca makatal mu karama mhm. waaye tamit di jàppale góor ñi comme ni muy jàppale jigéen ñi mhm. ñu koy liggéeyal mu daal di leen di di leen di fay lépp pour jàppale leen mhm. waaye yaa oustaz baa xam nga ne soxna Xadija euh, sëy na ñaari yoon laata yonent bi salallaahu alayhi wa sallam waaye ki euh, borom këram gu njëkki nag mu ngi tudd ateex yàlla daal leen ci may doom ju jigéen mu tudd macha allah bi mu juddoo nag ah, li ah, ñu tegal ci ay fan yi tuuti rek yàlla daal di weddi waaye yàlla bi mu weddee nag boroom këram gi moom it tudd hind mhm. hind moomu nag ah, nekk nag soxna Xadija ba benn moment soxna Xadija daal di jàpp ëmb mhm. bi mu jàppee ëmb yàggul dara xind daal di génn àdduna mhm. waaye doom ji bi mu juddoo daal di nekk góor ñu daal di koy tuddee papaam muy hind ci la ko yonent bi salallaahu alayhi wa doo koo takk boobu mu ngi am vingt cinq ans mhm. soxna Khadija am quarante ans mhm. foofu rek ñu ngi bëgg jàngale que ne mhm. sëy amul age ndax boo seetee Mm-hmm. soxna Khadija mi ngi magee yonent bi salallaahu alayhi wa sallam 15 ans kon foofu ki nga xamante ne dafa am 60 ans bëgg tag xale bu am 12 ans yooyu it yooyu yëpp euh, ci ay jàngat la ndax loolu yàlla daka daka daka njëkkee ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam mm-hmm. pour nga xamante ne moment yi duñ ne duñ ko duñ ko sikkal wala duñ ko méttiwal macha allah waaye yàlla euh, defal leen ci ñu am si ay doom macha allah ñu am 6 bant mm-hmm. ñu am 6 euh, bant ñeenti góor ñeenti jigéen ak ñaari góor ñu jigéen ñi ñu nekk soxna Khadija soxna Rokhaya soxna Umu Kalsum ak soxna Fatima. Mhm. ñu góor ñi nekk Xaasim. Mhm. ak Abdullahi. macha allah kon soxna Khadija sëy na ak yonent bi salallaahu alayhi wa sallam tolloog vingt cinq ans. wallaahi soo soxna Khadija ci lay mhm. door génn àdduna. à l'âge de soixante cinq ans. boobu bi salallaahu alayhi wa sallam mi ngi am cinquante ans. macha allah mu nekkoon ay jikko yoo xamante ne ni. te boo seetee sax laataa takk gi. da ngay gis soxna Khadija. dafa doon seetlu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ndax temps yooyu dañ daan am jaam mhm. boobu soxna Xadija mi ngi yor jaam mais temps yi su yonent bi nekkee ci moom mhm. ah, daka daan booleeg moom nga xam ne lu mu gis ci moom rek mhm. daka daan bind bu ñëwee daal di ko koy eh, nettale euh, ci noonu ah, te ah, jamono yu njëkk daan na dégg ay mag di daan daan wax que ne jamono yii di ñëw am na yonent buy ñëw dina am qualité yi waaye dina am jikko yi tamit moom nag jàpp na loolu bi mu gisoo yonent bi rek ne ah waa jaa ngi nii daal di ciy dugg foofu rek ñu war a jàngal ka ne nekkul jigéen góor rek mooy dem xooli yaayu doomam waaye jigéen tamit war naa mmh. tànn kan moo war a nekk bàyyi doomam mmh. waaw parce que loolu des fois daf may jaaxal da gis góor rek mooy tànn ah, da ngay gis ku góor dem foo foo ba yaramam tàng waaye bu gisee jigéen ju baax da koy dem takk ji waaye yow mi jigéen ki war ngaa tànn kan mooy war a nekk sama baayu doom ah. ndax loolu tamit dafa am solo kon dooguma la jigéen war naa mën a gis góor waaw ni góor gi bëgg na maa xamante moom xaman ko mu ne ko yow bëgg naa laa nga nga def ma ah kay ah kay hmm. waaw ndax euh, soxna Xadija bu mu ko defee rek loolu yëpp ci ay jàngat la pour que jamono yi di ñëw hmm. ñu mën di ut référence boobu. kon soxna moo moo parce que parce que daf ko daf ko daan liggéeyal mais temps yi mu ko daan euh, kiiwal yëpp daanu ko fay. su ko defee nag papaam Abu Talib daal di koy ne ko ah jot na nag nga dem wax soxna Khadija mu daal di lay jox sa xaalis dangaa mat ci takk soxna boobu yonent bi mi ngi am 25 ans. bi mu ko ko demee wax nag ndeysaan jigéen. mu ne ko ah dangay wut euh, soxna te man damay wut borom kër. te boobu ba léegi maa ngi wër waaye gis naa ci yow ay jikko. ak ay melokaan macha allah yoo xamante ne ni doy na ma bëgg naa nga nekk sama borom kër. waaye jour boobu ko yonent bi dem waxee ko papa Abdou Talib. ah dane ko dangaa juum. Mm-hmm. demal nga laaj ko lan la la wax. Mm-hmm. ndax boobu. soxna Xadija amoon na daraja mm-hmm. amoon na doole amoon na mm-hmm. recherche mm-hmm. ba nga xamante ne ni kenn mënut ko wax waaye benn bés nag ci biir sëy bi ak yonent bi salallaahu alayhi wa sallam benn bés soxna Xadija toog na ak yonent bi ne bëgg naa nga wax ma kan moo gën a riche fii si Màkka ne ko yow mu ne ko kan moo gën a pauvre fii ci Màkka yonent bi salallaahu wa sallam ne ko man mu ne ko bés mi ci tey jël naa sama alal yëpp jox la ko yow yaay ki gën a riche ci màkka waaye man mii soxna Xadija maay gën a pauvre ci màkka ñu foofu rek ñu xool tamit jikko jigéen jigéen nu mu war a mel ak borom këram jikko yooyu jar naa xam jeunesse bi war nañoo jàngat ci euh, histoire yooyu noonu gën a xuus suñu histoire démb pour nga xamante ne ni dañuy gën a mën a euh, euh, xam fu ñuy teg seen tànk waaye ba tey ci foofu noonu da ngay gis benn benn borom kër la am ñetti soxna waaye waa dëkk ba yëpp dañoo topp ne ko dangaa dangaa jéng ndax fuñ la fekk rek yaa ngi ci ñaareel bi di ko ko wax di ko ko wax sonal ko bay bëgg a dee benn bés daal mu daal di woote ñëpp ci pénc ba dëkk ba yëpp ñëw toog ci pénc ba ñetti soxna yëpp daal di toog mu yónni aaw bi ne ko demal nga jëli li ma sama satala bi waaye boobu sëñ bi fekk mu ngi yar benn xar ak xaj moom borom kër gi am ñetti soxna yi mu ngi yar benn xar ak benn xaj waaye bi mu yónnee aaw bi nag ne ko demal ma jëlil ma sama satala bi aaw bi jóg dem jëli sa tala bi mu daal di tëb ñaareel bi dem ba ci ñetteel bi nekkoo demal nga andil ma sama sijaada bi ñetteel bi dem jëli sijaada bi ñëw teg mu ne ñaareel bi demal nga andil ma sama kurus bi waaye gis nga ñaareel bi bu mu jógee xaj bi ak xar bi dañoo topp ñaareel bi ànd ak moom bi muy dem di jëli kurus bi mm-hmm. mu ne leen gis ngeen lii yéen a teg seen bët fu mu jaar ak ñii ba ñu topp ko man foofu la jaara ak man ba ma topp ko mm-hmm. ko defee nag waa mbokk dëkk ba yëpp ndeysaan daal di sukk di jébalu pour wan la jigéen am na nu muy mel ak borom këram wala am na nu muy mel boo koy booy ànd ak moom sax doo ko tey macha allah am na solo am na solo trop mais xam naa bala maa dem si oustaz pour mu dugg si waa waa sëriñ bi mm-hmm. euh, Seydina Mohamed euh, da nga ne amoon na soxna si juróom benn bant waaw juróom benni bant juróom benni bant yooyu anañu ñoom ñoo yonent bi ko fi dañ fay jógee wala. waa dañ fee jógee nag. jotuñu amul njaboot ñooñu. ah ma xool jot nañoo am njaboot nag. njaboot gaa ngi fi. njaboot gi ah, ñoom tamit ah, est-ce que génn nañ àdduna. Ah, est-ce que sëtu yonent bi am na. waaw bu fekkee noonu na demee moom yonent bi am na fi ay sët de. xam nga foofu. Mhm. Eh, Assane. Hmm. Eh, leeral gu rëy moo ci war a am. Hmm. Hmm. pour nit ñi xam ni. am na ñuy critiquer loolu. waaye nag alxuraan moo leen setal. alquran waaw mhm. moo leen seetal ba Baye assan eh, Assane ku amul sët amul. ku judd ko nag ñaan nga yàlla am ay sët. waaw ñaan nga yàlla am ay doom. Mhm. dafa am yenn kàddu yoo xam ne ñaaw sax nit di ko wax. waaw mhm. xoolal ma ndax ça résonne bien. ndax loolu baax na neex naa dégg ci nopp. yaa ngi dégg. wala ali yi joo dégg njabootu Seydina Muhammad la. wasaabi yi joo dégg mboolem ku mës a ànd ak moom la. wasallama taslima nag dañ koy ñaanal mucc moom rasulullahi xam nga bàyyi lu ñu war a jàng ci loolu mhm. Seydina Muhammad am na juróom-ñaari bant ñaari bant waaw coow li sax bari na mhm. am na sax ñooy dégg ñoo am na juróom-ñeent wax ji wax ji bari na ci xilaasu bi ak Seydi Aj Malik mi ngi koy leeral mhm. waaye li siiw te ñëpp ànd d'accord ci mooy yonent bi day am na juróom-ñaari bant kenn dong la xadijatu jurul muy ku ñuy wax Ibrahima ka ñuy wax Mareetu alxibti yi moom moo ko jurul moo tax ca giir ga mu bokk ñu ne bani sulaymin isama faaxaru nasaban te faaxaru bi xayri xalqi laay kullihim yi ndax bokk gi nga xam ni mhm. ibrahima mu bokk nañ ko ci famille boobu maratul ak xibti mhm. moo jur kooku waaye ñi des ñëpp bankal sa baaram mhm. abdallahi xadijatu ko jur xaasim xadijatoo ko jur roqeetu xadijatoo ko jur zeynabu xadijatoo ko jur umu kalsom xadijatoo ko jur fatumata bintu rasul xadijatoo ko jur fatumata bintu rasul moomu nag moom moo nekkoon soxna Seydina Aline borom xaybar soxna Seydina Aline jàmbaar jooju nga xam ne moo toj xare yi soxna Seydina Aline mi jàkkaarloo nag Omar ibnu Wadd coow la bari loolu ndeysaan coow li bari loolu asan mu xëy xëy xëy rek xëy xëy xëy rek moo Omar ibnu Wadd bëgg yàpp yonent bi Seydina Aline kat kat loolu duma Omar ibnu Wadd xis ba yaatu na mais taxumaa jug tey damay bañ temps bi jël ko mhm. kookoy Seydina Aline ñu boole kooku nag Sayyidatuna Fatima waaye problème da cee am. Hmm. mbaa yëg nga ni Assane Fatima bëggoon na Aboubacar bëggoon na hmm. bëggoon na Fatima. ndeysaan xam-xam laa lay wax de. Ousmane bëggoon na Fatima. Hmm. macha allah Xataab bëggoon na Fatima. waaye nag ndekete Alioune moo war a doon jëkkëru soxna jëkkëru Fatima. ndeysaan Aboubacar dafa ñëw. alal ji mu am mu indi ko. présenté wu ci kër Fatima. sañse lu rafet parfumé wu. Mhm. ñëw toog ak Fatima jàkkaarloo moom ci salon bi wax ak moom Fatima ni ko problème bi ma am ak yow mooy adduna bi yëpp nee na yow sama bàyyi nga. lii rek sama problème ak yow. Mhm. lii rek kay sama problème ak yow. Aboubacar Pousse. Mhm. dem ni gars yi doxul de. ñu ne nañu xool Seydina Omar Seydina Omar moom la mu def mooy dafa xëy rek suba dem marché bu mag. ville dem jënd ensemble costume bi mu ñëwee toog ak Fatima Fatima ni ko xam nga lan moo tax du ma la bëgg Omar mu ni ko naam mu ni ko style bi ma xamoon ci yow da nga koo changé te góor warul changé eh, eh, <laughs> <laughs> mu des Seydina Ousmane mu des Seydina bi mu ñëwee toog Fatima toog mm-hmm. waxul Fatima ni ko man problème bi ma am ak yow leen dong la mooy àdduna si yëpp dajaloo nañu ni da ngaa bari kersa te jigéen jëkk rek jabar am na fa ñuy toog la kersa waru fa am te Ousmane yow da ngaa bari kersa ñu nettali loolu kaa bi Seydina Alioune jot ñun ko yow comme yaa ñu ko gën a jege nag ndax bul fàtte ni Abi Talib moo jur Alioune Abdullah moo jur Seydina Muhammad ñu ni ko kon yaa fi sës de Alioune xam ne bu demee Fatima da koy bàyyi da koy da koy wàcce du accepté Seydina Alioune fàtte fàtte Fatima hmm. góor da ngay bari pexe. ndeysaan da ngay bari ba ngay bari secret. des fois nga gis jigéen bëgg ko waaye bàyyi ko ne ba ko rek ak jamono jamono moo koy xëcc ba mu xam ni yow la war a bëgg. ndeysaan Seydina Alioune Xaybar jot xare bu mettee méttee méttee méttee. wax nañu ni sax. gars yi bi ñuy départ fa la ñu bàyyi Seydina Alioune. Mm-hmm. karamallahu wajha moo daan wax ni karamallahu wajha man yi bi ma nekkee sama biiru yaay tam. Mm-hmm. donte la sama yaay duggagul woon ci lislaam bu daan sujootal xërëm yi daaw ma ci bokk. ñaar biir bi. Mm-hmm. wiññaar biir bi ba sama yaay tayal ba bis boobu du su li mu ma ëmb yëpp man Aliou fexe naa ba su jootalul xaram kooku noonu moo toog ci xare nag xaybar di toj xaybar jàpp yéeféer yi di rey jàpp yéeféer yi di rey ñu yenn saay yi mu xëcc loos rek asan ni cas ñu ni bopp ba tàqali ko naag moom <laughs> yenn saa yi mu xëcc loxo ni cas ñu ni loxo ba dem na yenn saa yi mu yëkkati nit ba ci kaw asan doole ji mu yoroon moom seet naa leen kenn mënu la koo wax aj laa aj ba ñu lay séen mi ngi mel ni rek sooy bu mu ni cas <laughs> waaye bu mënu cas toob rek daw ak moom ba ñu lay séen ba nga foog ni dara xewul rek nga rëppatal ko ci suuf poussière bi jug kenn xàmmeetul mhm. Fatina Fatima naan waa kii kan la Seydina Alioune di daw di rey gaay mhm. di rey gaay moom yëg ni Fatima mi ngi seetaan xare bi Fatima fi mu toog jigéen ñaa ngay saro xolle mhm. muy wane ni waa jii de xamul kan la waaye moom bëgg na ko ñu jëkki jékki rek Alioune def ci moom écran jàkkaarloo moom ni ko Fatima bëgg ma Fatima bëgg nga ma wala bëggoo ma mu ne ko egg suñu kër moo tee sama bàyyi may ma la <laughs> <laughs> macha allah am na solo mu ko egg suñu kër moo teye sama baay may may moo tax sëy boobu dañ koo annoncé kaw asamaan koo koo jur Assane ak Ousseynou Assane ak Ousseynou moomu nag mm. kii moo ni Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani mm. kii moo meññ Cheikh Ahmed Tidiane Chérif kon kay lii ma la wax mooy li am mm-hmm. pour nga bañ a sonn ci détail yooyu ndax ñu koy laaj bari na mais lii ma la wax ak fu nit mën a wër wër loo da ngay wër ba sonn ak téere boo mën a dem fii ngay dellu si waat yow ko yaa fi nekk naan jeex nañoo rey nañ leen ca ca ca ca ca kuufaak coow ya ba coow la bari karbalaat yooyu yëpp coow la rek man damaa déggoon nag si sa ñaan yeneen tamit laataam fi jógee suul na njabootam gépp ñu koy wax ñëpp fekke wuñ ko asan mm. <laughs> ñuy wax loolu amuñ kenn ku ko ci fekke mais li nga wax ni moom moom si lu yenu maanaam ndax it ku ku jot a am doom bu sëy waaw li ñu war a faa ñàkk juri ñàkk juri doom li ñu war a xam mooy Assane mhm. borom guddi gi di Seydina Muhammad si Aji Malick sa maam ne mhm. Mhm. nee naa la moo bokk ak maam borom Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul maam Maara moo jur Ahmadou Fari Mata Mbacke mu jur Mati Mbacke mu jur Ousmane Sy mu jur Seydi Hadji Malick xam naa kontaan nga ci loolu waaye boobu maam Maara Mbacke ba tey moo jur maam Balla Aïcha mu jur maam Mor Anta mu jur góor gi demoon Gabon jaari wiiri wiiri jaari maa yombe coow lay bari si réew mi rek mais lu sa làmmiñ rëy rëy rëy xel ni alaaji Maalik la gën a bokk Serigne Touba Serigne Touba la gën a bokk ak alaaji Maalik ah. boo toppee histoire laajte ko ba ñu wax ko mm. nga xam ne yow taalibe rek nga maa joxe am baa seen yaa ngi dégg déedéet <laughs> dama ni la. Serigne Touba bi ñu ko laajee ndax am nga xarit mu ni waaw am naa xarit. kuy sa xarit mu ni kenn dong la muy Malick mu faa waa doole. law ittaqattu qalilan kuntu aarifu la jaxaltu ko yow Maodo fawqal kulli biru tabin. yow it mën nga koo dégg firee ko nu mu la neexee. Mhm. wala nga bañ cee d'accord sax ni ma la waxee. ni sëñ bi waxul loolu mais lii yow yaa xam. <laughs> yow yaa xam parce que yow taalibe rek nga maa ngi woyam. <laughs> lii Alaaji Malick bokk ak Serigne Touba bokk ak réew mi su tasee rek as la as as tijaan mm-hmm. as murit as xaadir fu ñu dugg yàqu ko ndax seen làmmiñ dafa rëy mm-hmm. te la ñuy wax xamuñu ca dara mi mm-hmm. dama ne la maam maara mbàkke moo weññi moo meññi koo koy ndaanaan bi asan cooli cooli maam maara mi leen boole meññ doon seen maam ñoom ñaar ñëpp te ñooñu toj réew bi moo tax ma ne la moom Seydi Hadji Malick dalay Rasulullah réer ko bég nga loolu asan day wax di wax ci yonent bi bay wax béjjaaw yi diggante bopp bi ak sikkim bi ñaata béjjaaw ci ne topp leer rasulullah yi ba dara dul dara mm-hmm. alaaji malik topp leer gi rek way nëwoo mm-hmm. is aradallahu nashatana abana min nuur yi nuuran nabil alami suleymaan foo bëgg a dem man ko xanaa xami rasulullah yi fan man ma ni ko xanaa Maroc alaaji malik ni ma jarul dem Maroc man ko maam booy teeg maa bàyyi ma dem Égypte mun ma jaru ngay man ko teeg maa bàyyi ma dem Arabie Saoudite ngir jàng ji kenn mooy Seydina Mouhamed alaaji mal ni ma foo dëkk ma ni ko Thiès mhm. ma ñaataa nekk sa poos ma ni ko quatre cent cinquante francs munu ma jëlal sept place ndax man la ñuy woowee borom septième gaar fekk ma tu vas fon boo nee cëpp tu vas voir tu la vis et tout se passera bien nag te dara du la réer ci yonent bi man ko alaaj Malick mhm. dama lay laaj yonent bi alayhi salaatu xam nga alaj ma dafa wax benn wax dafa samp ndënd moom Maodo ni yaa raa isol baxri yow miy xuus géej yi ngir bëgg xam kan mooy Seydina Mohamed India ñëwal ci man boo ñëwee ci man dara du la réer déglu déglu boo ñëwee ci man Maodo dara du la réer ci yonent bi mu jox cër loolu imaamul Buseyri mm-hmm. Buseyri am fukki buntu alaaji Malik am fanweeri buntu Alaaji Maalik nëbb fanweeram daal di génnee fukki buntu imam Buseyri parce que modeste na wala modeste te te li nga wax nii daf ma si tàmbali bi yaa ngi ne ma bindu téere sàngam bindu ko te yaakaar na ni moo ko bind maa dafa ñëw teg fee lam am jël lii wane alaaji Maalik ko ba ñëpp naan moom laaj bi moom dafa nëbb boppam wan kan mooy imaamul Buseyri Assane hmm. sax dur nga dégg Mawlaaya salli wa sallim daa xam nga sax nga dégg ko da nga ne ah, bind ko bindul bi xasida ni mu ko wanee bañ ni moo ko bind xola téere bi alaaji Malick bind moo jommal àdduna moom la ñuy tuddee xilaasu zaar lépp lu baa lu ma ñëw yow ci moom ci yeneen bi lépp lu la réer ci yeneen bi téere boobu da ko alaaji Malick da koo fof rek naan ko rek dem ak moom ba pare téye boppam nag nëbb boppam ah, di la joxoñ nag moom Maodo ni la kii mooy bu Busiri sama nawle la waaye del dégg déggal li mu wax yeneen bi mm-hmm. imaamul Busiri moo ñu jàngal naka la ñuy incarné waaw bëggee soxna nga bëgg koo nga bëgg koo nga bëgg mu nopp la. Mhm. imaamul Busiri moo lay jàngal naka nga koy incarné pour soxna si nopp la. day wax ci xasida bi. di tagg Rasulullaay def incarnation bi mu mel ni jigéen lay waxal. Oh. mu mel ni jigéen lay waxal moom Busiri. Mhm. Mhm. naan amin de zakurin. jiraanin bi si salamin. mazajta dam xanjara min muqlatin bi dégg loolu amin tadhakurin jiraanin bisi salamin mazaj tadam xanjara min muqlatin bidami ma loolu xaadir yi du ma dégg ñu koy wax <laughs> déedéet air bee ko ndur ah air bi waaw <laughs> da wax loolu rek ma dem nga dem ndeysaan dem ba ci biir mhm. fa kayfa tunkiru xubban mhm. baadama shahidat Mm-hmm. bi alayka udulu dam ay wa saqami mm-hmm. ñu foog ni foofu la yem asan mu ni mm-hmm. déedéet lawlal hawa lawlal hawa lawlal hawa lam turiq dam an ala talalin wala ariqta li dikril baani wal alami imaam bu sey day wax de <laughs> jël ndeysaan. àdduna di jël cofeelam ci yonent bi. di ko melal ci àdduna di def lu arab di tuddee gazel. ndeysaan. amin tadhakurin mu ni boo bëggee sa firi neex mi set da nga naan amazakta ndax jaxasewul dama xam ay rangooñ yoo xam ne jaraa mi ngi daw min muqalatin bi dem min tukkee sama nagu bët yii man imaamul Busiri yi maam nee na ki muy bëgg a wax ci moom cofeel gi ko dal dal na ko ba ay rangooñam di tuuru ndax nopp ko rek mm-hmm. ki muy waxal ah loo bëgg a wax maam bu sey nii fa kayfa tunkiru xubban ba'da ma shahidat naka ngay wedd ni da bëgg ndaw si ñëpp taxaw nga wedd ni bëggoo ko te ku la romb ngay jooy ah, ah, ah. <laughs> bëggoo ndaw si te daal croisé nga bara tiim ko di jooy rek ku la laa ngeen ni bëgguma ndaw si mu ni fa kayfa tunkiru xubban ba'da ma shahidat yaa ko seede di bii alayka udulu dam ay wasaqami waa may rangoo ñu ngi tuuru yu ànd ak feebar ngir bëgg ndaw si rek te waxoo dara. te waxoo dara. daa mel ne waykat bi way na saar way woowu. waaw waxoo dara. sax su si ngom di yee ko xool nga mer te waxoo dara. te waxoo dara waaw kay ko ko way wax dëgg na. wallaay ndeysaan. yaa ngi dégg bàyyi san te kat yonent bi lay waxal. Mhm. yonent bi lay waxal. foofu Seydi Hadji Malick def na lu ni mel. ndeysaan Seydi Hadji Malick moom fan la fa ni daxil atnaaba qul kullul baraaya. daxil atnaaba xu fële dafa wax ni ala hablal mawaddati. Mhm. daxi an ki taxaw nu jëzata dallin góor gi loolu la wax. bi muy egg bi muy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko incarné moom Maodo daf koo melal comme jigéen. ndeysaan. ndax ñoom ñëpp bu ñuy wëy dañuy melal ni kuy wax ak jigéen. fekk waxuñu ak jigéen yonent bi la ñuy waxal. mu a ndaw si eh mënoo bàyyi sa sa pant pantul gi ngay def di ma di tiitaru. sañse ba mu rafet tekki sa musóor ci say verre sañse lu rafet rawatina ni ko Seyda Sole mu moof loolu am feeling mënoo bàyyi tiitaru gi ngay tiitaru di ma tiital di ma per njaayoo day an ka taxaw nu ja zata dal leen Seyda Malick ni ko yaa ngi may rey xale bu jigéen bi ci waxee. si daal maa ne ko ay eh waay soxna si ci waxee ci waxee waxut ak soxna si de mhm. Sayyiduna Muhammad lay waxal. nan ko yaa ngi may rey. Mhm. bii yaddaadu bi sama xol bi daal mi ngi dolleeku min fitwuni yaa ngi may fitnaal ngir bëgg gi ma la bëgg. moom ngay jékki-jékki rek nit xool ki mu bëgg ba ci yàgg ni ko yow neexul ba neexul waaye tu es l'oxygène de ma vie. Mhm. Seydi Hadji Malick moomu nag. moo téye yonent bi Assane. wax ci lu rëy. dafa départ yow ni leeru rasulilah la Maodo tàmbalee. lorsque Dieu a voulu notre création. Mhm. góor gii kenn du moom ci yonent bi. il a manifesté de sa lumière celle du prophète beeku nii. Mhm. dafa ni Seydina Mohamed fi leer gi jaar laa laaj maa ne tàmbalee. Seydi Malick di wax nu way nuur is aradallahu nashatana abana min nuuri nuural nabil alamin ñun ko Maodo dañoo bëgg xam yonent bi avant muy juddu am na ku ko bañ wala amul ku ko bañ Alaaji Malick ni aan am na ko ko bañ de ñu ko nu mu tudd mu ne abraha yaa wéy la abrahatin dallat makidatu isma yusuqu fuyulan xaasidal xarami wala ma ne ndax màkka googu am na ñu doon xëccoog moom wala amul ñu doon xëccoog moom mu ni ankay am na giir gu rëy am doole goo xam ni ñu ngi leen tuddee giir jurhum wa haada jurhum baytallaahi raadiqina min baadi naabidin asfa min arrahami wala ji ma ne ndax papaam abdallah avant mu ko takk per njaayu nañu ko wala per njaayu ñu ko mu ni ankay xale bu jigéen bu rafet bu ñuy wax Fatimatu milliardaire la Abdallah da koo romb mu seen leeru yonent bi ci moom mu ne day nangu leer ga daal ni ko kaay dinaa la jox cinquante millions kat kat yi yaay boroom loo fi gis ma am ko yaay boroom compte banque yi ubbi naa ko dama bëgg ñu làqatu def na ko su dul noonu laa ji maa lig Abdallah tontu ko ni ko amal xaraamu fal ma ma tudduunoo dee def lu araam dee yàpp yàlla jàpp ma tàbbi safara tàbbal ma ci daaji Malick ñu laaj ko waaw Seydina Muhammad dañoo bëgg xam Malick maam Fawad wele moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. dëgg dëgg dëgg dëgg rasulullah alayhi salaatu wasalaam naka naka ñaata at la am moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu def opération ci moom Seydou Hadj Malick nii vérifié naa ba lijjanti ko mm. xam naa ñaata at la am moom yonent bi ci lañ ko opere ñaata yoon lañ ko opéré mm. médecin bi ko opéré mm. bi ñu ko indee hôpital ke bind ordonnance ba na mu ko bindee pharmacie bi ñu ko jëndee Alaaji Malick ne lijjanti naa loolu lépp ba xam ban pharmacie la ban médecin la ban doctor la ban hôpital la ana kan moo opéré Rasulullah sama Maodo ni mm-hmm. wa baada amay nii wa shahrayni mhm. suqaloo sadru wa fil baasi wal israa li salami deux ans yu tegal deux mois bi mu ko amee opéré nañ ko asan dama laaj mhm. bi mu amee quarante ans opéré nañ ko mhm. dama laaj asan ah. bi ko yàlla yónnee woo ko invitation kaw asamaan opéré nañu xolam moom rasulullah yi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa mbaa yëg nga ni soxor yi ne ci ñun ak iñaan yi ne ci ñun nekkul ci yonent bi bàyyi nga loolu waaw asan déggoo ma <laughs> yi ne ci ñun mm-hmm. say daal iñaan yi ne ci ñun nekkul ci ñun loolu tax xalijatu bëgg ko mm-hmm. problème am na uh-huh. wax na ko léegi léegi andun tazawajaha min qabli atiq dëgg ko wér nga wax sayda mm-hmm. ñaari jëkkër la am kenn koy wax indi mm-hmm. waaye laataa ko ind di takk ki ko jëkk a takk la mm-hmm. Seydaa ni nga ko nettalee noonu la mm-hmm. teg nga ko ci yoon de leer na nañ ñaari jëkkër la am moom Xadijatu gis ca lëm ca gis dund ca lëm ca dund daal di pare na dëkk mal nag ni day xool waa ji fu waa ji ne amaanatu gi yàlla téewoon wallaahi lu baax li ma lay wax. amaanatu gi yàlla téewoon. da koo joxoon da koo jox ki nga xamante ni mooy ruuxul amiin yi. mooy jibril alayhi salaatu wasalaam jibril moomu mu ko jox mu jox ko muhammadul amin mooy seyduna muhammad mu dem ak moom fii baladil amin ci réew mu tedd moomu di màkkatal mu karam waaye nag jox ko yaay ju baax ju naan waaye nag mu am soxna su baax nag waa ndax mhm. xadijatu ni mu mel moom la sunu jigéen ñi mel. loolu nag jar naa laajte. Hmm? jar naa laaj nag. Seyda wax nga dëgg de. Mm-hmm. boo gisee góor gu baax goo nopp dama wax ko. waaw sa bopp. araamul de. Mm-hmm. te li mu wax dañ ko bàyyi góor ñoom ñooy tànn ku leen neex. jigéen amul droit tànn. jigéen day ixtiyaaru zaw ji dafa am. charia mm-hmm. da ko nangu. góor gu baax Assane. tànnalal sa bopp. Seydina Mouhamed Xadija ko tànn. Assane yow yaa tànn man damaa tànn. waaw hmm? ah, pourquoi ñoom duñ tànn. Ah, a tànn ah? yoon sax jigéen day seet ku baax mu tànn ko. Hmm. xam nga yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa salaatu wa salaam. Hmm. yàllaa ko defal boppam ni mu ko defal boppam. day xew te du xewi. moo ëpp ñëpp xorom Assane. musul jaar ci télévision. moo gën a siiw ñëpp. kii mosu koo dégg ci rajo mm-hmm. moo gën a siiw ñëpp mm-hmm. doo xëy bañ def ko ala une moom rasulilaay te ku yeewu yeewaaleeg ala une moom Mustafa xoolal Fatimatu mm-hmm. bintu jaxsin ak Fatimatu bintu rasulilaay asan Fatimatu bintu rasul daal jékki-jékki benn soxna benn soxna bu ñuy wax Fatimatu bintu jaxsin jàkkaarloog moom ni ko sa papa amul tous doomu ministre la nag asan yaa ngi may dégg laka mu'jizatun ajazat kullal wara wa fadailun jallat fa lay si toaka lu yàlla bind rasulilaay ci gën fatumati binti rasulilaay fatumati binti jaxsin ni ko sama bàyyee gën sa baay asan borom gàmmu gi laay wax de mm-hmm. ki nga xam ni tey waa Tiwaawan yëpp a ngi préparé lu ñuy préparé benn guddi benn heure mm-hmm. kan moo tax ñu koy préparé Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Fatumata binti Rasul. Mhm. Fatumata binti Jaxsin ni ko sama baay gën sa baay. mu ne ko sama baay naka sa baay naka la gënee sama baay. mu ne ko sama baay milliardaire la yow sa baay amul sax lu mu lekk. Mhm. te kat xam nga Assane kii ma naan amul lu mu lekk. Mm. moom la imaam li nii garab yi ñoo ñëw ci moom ñi ko xob yi xob yi seen bopp ni ko doonu dimbali ñu ñu nekk ay or nga jëfandikoo ñu Moustapha ni leen déedéet yéen ci sama barke lañ leen bindee jaat li daawatiil asjaaro saajidatan tamshi ilayhi ala saqat bi laa xadami kooku la ñu ñaawal de. munu ko sama bàyyi du sama moromu bàyyi Fatima ni ko ban heure jot munu ko midi 30 moo jot Fatima ko doo ma dimbali rek nga may ma midi une heure jot rek mais loolu laa la ñaan munu ko nañ taxaw. ñu toog ba une heure jot Assane. ñu jékki-jékki rek dégg. allahu akbar allahu akbar. ashhadu an laa ilaha illa allah an muhammadan rasulillah Fatimata bintu Rasul ni ko dama lay laaj fii sa baay nga dégg wala sama baay nga dégg. ndeysaan. nodd gi continué. ba nodd gi jeex mu ni ko sama baay bii nga xam ne ñoo ngi koy nodd ci kaw soroor ya mm. bis bu sa baay bi mënee fexe ba ñuy tudd turam du ñu tudd sama turu baay rek nga xam ne sa baay gën sama baay. mu jommi mu jommi tiit asan mm-hmm. jaaxle xamul fu mu jëm mu woo papaam papaam ni ko jarul xuloo xam nga nooy def. Mm. mu ni ko nooy def nu may def mu ni ko da ngay wootee réception bu neex ngay wootee. benn tàkkusaan hmm. nga invité say moromu jigéen nga ne leen yow moom nga ne ko yow yaay fille d'honneur bi bu boobaa moom benn yére la am doo am lu muy sol su ko defee nga tiital tuutal ko yow fu fu tisi di seeree dinaa la ko jëndal nga sol ko parfum fu mu riisee naa la ko jëndal mun ko papa loolu xalaat la de mm-hmm. mu jàpp ko dimaas wax ko Fatima altine Fatima amul lu mu sol talaata amul lu mu sol àllarba amul lu mu sol mm-hmm. ajjuma alxamis amul lu mu ko sol ajjuma ci suba mu dem ci Seydina Ali Ali ni ko maa ngi nii de yoroo ma dërëm mm-hmm. ndeysaan Seydina Ali amuloon dara mu ko yoroo ma dërëm Fatima mu ñëw ci papaam ni ko papa mm-hmm. kii de lii la ma def daf may gàcceel mu ne ko demal ci sa borom kër coow li bari samedi ci suba amul lu mu sol samedi ci ngoon amul lu mu sol xew mi dimanche na te mooy fii d'honneur bi benn yëre la Fatima te bintu Rasul am asam dimanche ci suba amul lu mu sol. quatre heures ci ngoon bi muy jot amul lu mu sol. Mm, xaritam yëpp dajaloo ci biir kër gi problème bi ñu am mooy Fatima benn yére boobu la am. Mm-hmm. am ñu ni ko te ñoo jund seen yére jox la àll la mu ni déedéet. ni ku nekk da ngaa war a dee sa ngor. Mm-hmm. même bu ma demee ba óoma lu ma sol. lii laa fay sol dem woon ko ni ko lii laa am. ndeysaan loolay jikko doo wax ak sa borom kër. Mm-hmm. mu ni sama borom kër lu mu am doy na doyloo naa ko. Oh. déggal loolu. Mm-hmm. waaw yéen ñi ne ci xew yi di sonal seen borom kër yi ah, yéen ñi ne ci xew yi sonal seen borom kër yi xoolal doomu rasulillah yi ñu def ko fille d'honneur amul lu mu sol ba dimanche ay xaritam ni ko tee ñu laa jox sa yére mm-hmm. suñu yére nga sol yow doomu Seydina Mohamed mun ne leen nit day dee ak ngoram su ma amul lu ma sol benn yére bi laay yóbbu ñu ne ko wax ko ko daal ni ko nag ñu ne ko sa jëkkër ji sa jëkkër ji mm-hmm. munoo dem ci moom soo demee mu ko jox leen mu ni sama jëkkër ba naa doyloo naag moom wallaahi ndeysaan jigéen doy day loo borom këram. baasal. desul lu dul saan jot. tabala yi junjung yi jëmmi. Ah, ndeysaan Fatimatu bintu Rasulillaay génn. Assane déglu li ma lay nettali. Mhm. bu ñu demee ba dëgmal kër Fatimatu bintu Jaxsin yàlla ni kar téléphone Jibril. wallaay ni ko problème yi nga am de. Mhm. waaye xam nga ni xam nga ni Fatimatu bintu Rasul warul am gàcce de. soloon na soloon na lii bay yére ba mu am la sol. Mhm. ba dëgmal kër ga. ànd ak nit ñi di nit ñi di dem. benn yére bi benn yére bi asan ah, hmm? cent mètres moo dox diggante kër gi jibril suñu borom ni ko kar téléphone moom jibril mhm. róola am amin ni ko xam nga lu xew mu ni ko naa mu ni ko Faatumatu warta am gàcce warta am gàcce hmm. warta am gàcce problème mhm. te ma ngay bëgg àgg te ma ngay bëgg àgg jibril dugg biir aljana seet mël fa ba dàq ci aljana mël fa bi asan mhm. aljana la jóge ñu ñëw jox ko Faatimata bintu Rasuul dañoo jékki-jékki rek gis ni am na luy am na luy solal Faatimata bintu Rasuul parfum bi di gilli jigéen ñi di daanu di yooxu saraxol lay ca kaw ñu jékki-jékki gis Faatimata nekk beneen Faatima moom 100 mètres laa la ko de. bind Bintu Jaxsin di sentir parfum aljana bi xëy. Mhm. teg seegul ci kër gi. mu génn daw yëg lu xew ñu ne ko Fatima ngi ñëw ak waaye li leer ba leer mooy un mètre la mu sol mënoo koo jënd moo ëpp li nga sol lépp. <laughs> wallaahi ndeysaan. parce que ma de mbirum rek. yàllaay far de. Mhm. ku yàlla si supporté nga jël première. wallaahi ndeysaan Assane ku yàlla supporté nga jël première. wallaahi ndeysaan. Seyda. mu hmm. sànce ba jekk. wallaahi dëgg ma. dëgg ma xew ma ñëw jàkkaarloog moom. Mhm. bi mu ñëwee jàkkaarloog moom. li am solo te yéeme te doy waar mooy ndaw si dafa ne ko dimbali ma nga wax ma tisi bi fan lañ ko jëlee. mu ne ko tisi bi amul Petersen. déedéet. amu fa de. Grand Yoff tisi bi amu fa de. Liberté 6 gii tisi bi doo ko fi gis de. marché yi gën a mag ci Ndakaaru amuñu tisi bi. mun ko ay ay ay ay Fatoumata bul ma toroxal. li soo ko defee mu ne ko gis nga tisi bi pour nga am ci. Mm-hmm. benn baat dong ngay wax. wallaay mu ne ko baat bi mooy lan mu ne ko mu mu ñeneen ñi mu àndaloon commencé xam nga li doy waar ci tisi bi. Mm-hmm. Fatima danaa nii rek boo ñëwee yaa Seyda. mu wëndeel la rek nga am tisi bi daggal boppam mm-hmm. taxawaat. keneen ñëw mboolem ko mu àndaloon ñoom ñëpp sol nañ ci tisi bi. ci tisi seer bi ci benn tisi bu seer bi. Fatima nii lay def rek. wallaay. mun ko ay Fatima. lii boo duggee moom kër gi mu ni ko nu may def Fatima leen mu ni ko leen dong ngay def. benn kàddu rek ngay wax. Mm-hmm. danga naan sama baay gën ko doon woo pour tiñal ko. Mm-hmm. mu ni ko neel ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ku ni woon ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ñu bari jour boobu la ñu dugg ci l'islam à travers tissu Fatimatu bintu rasul. macha allah. ndax si mujj na tuub. bañ tuub. Mm-hmm. mujj naa tuub dugg ci lislaam ngir jour boobu gàcce ko doon nara a dal. Mhm. tisi bi moo ñëw ubbale koñ bi. Ah, ndax tisi bi du tisu àdduna. jaaykat yi commerçant yu mag yëpp amuñu ko di. Mhm, mhm, loo tax nga xam ni kenn du Seydina Muhammad bu dee mu'jiza amu ci morom. bu dee jikko nag Asan nga xam ne nag fi lañu war a tëjee nag après. ko yi nag dama lay bàyyi ba nga dem ci sa yaa Seyda boo dellu fee nag ñu dugg ci jikko yi Rasulullah alayhi salaam. yaa Seyda. kon de jigéen yàgg naa. bëgg a tuutal moroomu jigéenam. loolu yàgg la. mais it wane nañ si ni boo doyloo. Mhm. mën ngaa am lu ne. ndax xaj na bu jéemoon a sol beneen yére wala mu ni gàntal. Mhm. xaj na lii mu am di tiisi ustaas wax du ko am. du ko am kon jigéen ñi mën nañ faa roye. Mhm. lu bari. loolu looñ si dollil bu ko defee bala ma ñëw si jigéen ñi naka lañ war a mën a waaja gàmm gi ak lan mooy seen róor si gàmm gi. macha allah am na solo comme ni ko yaa ustaas waxee rek. jigéen moom dafa dañoo am ay royukaay fii ci biir réew mi. Mm-hmm. ay royukaay yoo xamante ne ni yaakaar naa ni suñu tegoo ci seen i tànk rek. Mm-hmm. Euh, duñu juum te dinañ doyloo suñu borom kër. Mm-hmm. dinañ doyloo suñu bopp. waaye jàpp naa lépp ci yar gi la. waaye sa doom boo ko yaree noo xamante ne nii lu mu gis bëgg ko. lu moromam sol nga ne mu ne dina ko am. kon kooku euh, du doylu. te te foo ko fekk day tuutal jéem a tuutal morom ba. waaye ñu gën di ñaaxaar rek suñu mbokku jigéen ñi que ni àdduna bi de moom wallaay dafa jeex ba pare. Mm-hmm. ku ci nekk rek nanga nga loo la nga am. Mm-hmm. bul sonal bu leen sonal seen borom kër yi. déedéet dee leen yem ci liñ leen di jox. waaye mm-hmm. da ngay gis koo xamante ne nii dañ koy jox euh, euh, ab ab dépense am waaye ma koy xeeb di xool dépense moromam waaye xam nga ne kooku. yaa oustaz bu bu bu doylu woon rek du xool bosu moroomam waaye dina xool bosam foofu rek ñuy gën ñaaxaat am encore une fois di gën wax suñu mbokk jigéen ñi nañu gën a gëstuwaat suñu hmm. diine jii parce que boo seetee lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dakaa bind bàyyi ko fi hmm. waaye lépp tamit ci suñu téere maam yi dañ koo bind wàcc ko fi ñu war koo gëstu gëstu nag war a hmm. xam ah, naka lañu war a dundee macha allah am na solo waaye jigéen naka la war a waajalee gàmm gi nan la si jigéen ñi war a waaj nan lañ si war a demee fañ koy defee rawatina Tiwaawoon waaw macha allah jigéen ñi ni comme ni ñu koy defee chaque année rek yaakaar naa ne ah du bokkut ak yi nga xam te ne ni dañuy dem foofu pour di sinap. yóbbaale valise yeeg sinap yi téléphone yi yóbbaale valise yeeg wallaay ndeysaan yóbbaale valise yeeg sinap ku ciy dem nga yaakaar ne day dem pour un mois wala pour deux mois fekk na ñaari fan wala ñetti fan rek la la fay def waaye yóbbaale valise fas yéene solo costume yi waxtu julli sax da ngay gis da koy jël lem ba mu baax teg fee. Mm-hmm. duñ koy julli ndax maquillage yi ñuy def ci seen i kanam ak programme ba nañ koy toppee da ngay gis koo xamante ne day bàyyi itteem yëpp ah, dem ba ca gàmm ga te du dem ca jumaa ja ziyaare hmm. waxantuñ loolu du dem ca ca fa nga xamante ne ni fa la ñuy waxtaanee nga xam ne waxtaan yooyu nga xamante ne suñu mag yu baax yi moom la ñuy waxtaan dinañu yee parce que waxtaan gi ku la ëpp euh, ku la vision bi ñoom fu ñuy gisee ak ñun fu ñuy gisee bokkul à chaque fois ñu ciy gën di bàyyi xel te ñu wàññi puukare bi ñuy nekkee foofu noonu yaakaar naa ne benn yére wala ñaari yére taxuta bañ a bañ a bañ a dem gàmmu ji waaye bëgg dem bëgg yóbbu valise yu bari tamit loolu coono dong la leen yóbbee waaye di ñaanal ñëpp eh, yoonu jàmm ak salaam ci gàmmu gi ñu egg ceeg ak jàmm waaye tamit ñu ñibbisi si ak jàmm ak salaam lépp rek eh, ci ci ci jàmm ak salaam daal moom jigéen ñi bu ñu àggee dañuy solee ko sumeeku wala dañuy toggi wala am na lu ñu lu ñu war a mën a wax si guddi waaw xam nga dañoo am seen boo xamante ne ñooñu mën naa ne euh, benn côté dañuy dañ ñu leen di protéger parce que bu ñu demee dafa am ñoo xam te dañuy nekk ay jëwriñu waañ ñi nekk ci waañ bi ñi nekk ci organisation bi hmm. waaye bu guddi bi jotee ñu organiser leen ñu daal di dem fi nga xamante ne fa la waxtaan di am hmm. waaye am nañ ñoo xamante ne nag comme mariirandoo yi bu ñu déggee presque ñoom ñoo ci gën a ëpp nag mariirandoo yi ñoom dañuy dem bu ñu demee ñoom tamit ñooy xaw a def loo xamante ne ni daa aajuwul ak euh, li gàmm gi dara moo taxit bu ñu jógee dañuy jël ñëpp boole leen ci benn mbuus. Mm-hmm. loolu mooy euh, problème bi mais bu dee gàmm rek te gàmm ñu fas yéene ko wax ñu bëri dañuy fas yéene dem gàmmu ji war euh, euh, wormal bésu yonent bi juddu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam mm-hmm. def ci lépp li nga xamante ne bu ñu ko fi defee maanaam ñaan ñu fay ñaan laataa ñuy dellu si waat mm-hmm. sa mbokk yu ni bi daawu ko def de daawu ko def de. xam nga dañ ne daawu ko def may comme loo ñëw dañoo juddu fekk ko fi lu ñu mën lu dul topp ci Hmm. noo juddu fekk ko fi moom da ngay euh, doo mën dara lu dul euh, nekk ci ah tamit euh, di di ci jàng ak di ci wax loo xamante ne lu baax la. Hmm. Hmm. am na solo oustaz. waaw Baye Sane. foofu ñu war a dugg nag di ci waawoon. waaw xam lépp ni nii yaa ndax wax nga da nga dugg ci téere bi. waaw. waaw waawoon googu kilifa yee génn nañu wax ni. képp ku ñëw di gàmmu si. Mhm. li wër jumaa ji bëgguñu faa dégg musique des ko fay tere tux mhm. mii des ko fay tere maam col gu bon gi des loolu lépp laa waxtaan nañu wàllum yoon ba am nañu ni képp ku ko fa def yoon man naa dal si sa kaw yooyu waaw ndax ay yoo xamante ne dañ doon def lu la neex si wetu jumaa ji daal xam ni fii du demo maam du dëkk boo xamante ni dëkku titre foncier la waaw di def lu leen neex mais ñoom jaar nañ fa ñu war a jaar ba loolu autorisé nañ leen ni mhm. loolu bu mu amati li jege jumaa ji waaw dafa am ñaari question sax maam boo indi woon sànq waaw ak bii waaw kay bi njëkk mooy ñu ngay dégg ñu naan gàmmu bidaa la Seydi Hadj tontu na leen bu yàgg waxul minal bidaa al mustaxsinaati Seydi Hadj Malick nee na bu fekkente ni yow nee nga gàmmu bidaa la day jàppal ni kon bidaa bu rafet la yow yaa ko jàppee bidaa moo tax Seydi Hadj Malick ak ak ak ak yiw ci ni muy tontu ko def maa maa ngi ñëw Baye Assane Seydina Mouhamed bi mu doon def moo dàq ci gàmmu yi hmm. Seydina Mouhamed dafa doon gàmmul boppam xam nga gars yi dañoo rëy di wax rek. Mm. Seydina Mohamed ni mu daan gàmmoo bi ci gën a li ci njëkk asan mooy bisu juddoom bu jotee danaa tey jii de laa judd woon. day woor bis boobu moom rasulullah. Mm. ah kon kay daana ko def. doo ma dégg lu ma la wax. weesu naa ci bi daan na gàmm. li nga ko def kon. dama la weesu naa yonent bi daan nag gàmm. Mm. ki ko gàmmul laa lay wax. ñi ñoo néew xam-xam wax kay waay Assane. <laughs> ñu naan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki tax ñu bind la. ki tax nga ne xew ba na naan xew xewaaral bay xew hmm. ba tala xew yow ba tala xew buñ buñ lay wax ci xewam nga war ci mën a ànd ak bég hmm. suñu ne la yonent bi lañuy màggal waaw da ngay laaj alaaji maalik nan la ko màggale hmm. màggal guddi gi yonent bi saa salaam mooy julli mooy naafila mooy jàngal quraan mooy def ci salaatu ala nabi mooy di waxtaane kan mooy seydina muhammad moo tax seydi alaaji maalik ala azimu laylal wilaadati isbatan màggal leen guddik yónnent bi te ngeen sàkku ci yiw li la wax de mm-hmm. isa lam naxwal xaraami xuduulu bu fekkante woo leen jubluwoo leen ci def lu ñaaw def bàkkaar def salte ku ko ci def sa affaire la waaye man Maodo wootewuma loolu kon màggal guddik yónnent bi dafa war yow mi naan bidaa nga foo ko teg dama ci alxuraan alxuraan ñaata yoon la yonent bi sunu boroom ci boppam moo ko njëkk a màggal. sëñ na moom yàllaa ko njëkk a gàmmul da nga fàttali woon Assane. Hmm. gars yi dañuy wax rek. Hmm. li ñoo xamuñu ci tus. ku toll ni sa xanaa sax pale boo fiy dugg rek boo jàkkaarloog jomaay di nga ko tóojal. pale gii. Hmm. ñun la tóojalal rasulilah nga cay lijjanti lu cay bidaa ak lu ca dul bidaa. <laughs> na solo xam nga seen lu ñu jaawale. ki dem ba Tiwaawan def fa bàkkaar yaay am bàkkaar bi yow. sa affaire la. waaw kooku yow a yàlla la. ki dem ba Touba def fa bàkkaar yow ak yàlla la. bàkkaar bi yow lañ koy bindal. mais kii woote moom li mu woote ci sunna la ko teg. asan jàngoo bo ñuy jàng alxuraan xam nañ li may wax. yàlla moo wax ni Seydina Muhammad. wa kaana. Mhm. fadlullahi alayka al azima. Mhm. yàlla nee na ngëneelu Seydina Muhammad yàlla ko yëkkati ba àdduna yëpp teg ci bët. loolu du dagg. Mhm. Hmm? déggoo alam nashrah laka sadrak wa wadaanaa anka wizraka alladi anhada zahraka lu ci yàlla teg naa lakka laka zikraka yow Muhammad sa tur yi dinaa ko yëkkati ba àdduna yëpp xam ko loolu loolu du ko am asan loolu du hmm? ko am loolu mën nga ko mën nga cee génne gàmmu yonent bi ah jàng nañ ko koy alxuraan ju leen ñoom ñoo ñàkk ba ñoo jël décision ni duñ duñ ko nangoo accepté duñ ko déggee noonu mhm. waaye bu gën a garaaw bi laa lay wax mhm. yàlla benn yoon la woote assemblée générale. moom ak malaayka yi. Mhm. te xam nga lu ko waraloon. gàmmul yonent bi. <laughs> yàlla yàlla laa wax de ñii wax ñëpp dépassé na samay samay mbir aw ma ak ay jot lu leen dama dama lay wax yàlla ci boppam. Mhm. moo gàmm moom suñu borom. ndeysaan. yàlla mu woote assemblée générale. wax de <laughs> yàlla mi ñu bind. Ah. moo woote assemblée bu rëy. Mhm. gàmmul yonent bi salaa hmm? ñàkk xam-xam. te mën a te mën a wax wax lu salte lu toll ni yonent bi ñu naan dañ koy gàmmul nga naan bidaa la yàlla moo wax ni moom yàllaay wax de inna yàlla wa malaykatu ak i malaykaam yàlla ak i malaykaam mhm. ñoom ñoo ànd def benn bolo ñoom ñëpp ñoom ñëpp yàlla ne leen yu sàllu na ña julli léegi nañ ma génnal julli boobu ban julli la mhm. bi ko yàllay def te te te déggoo ma de. dégg naa la bu baax. inna allaha moom yàlla. wa malaykatu ak i malaykaam moom yàlla de yu sallu na ña ngay julli. asan déggoo de yàlla waxul da cee génne boppam de. Mm-hmm. foofu amul ah, exception bi. Ah, istisna amu ci de. Mm-hmm. ña ngay inna allaha naka yàlla moom buur bi bi nu moom. wa. malaykatu ak ay malaykaam ñoom de yu sallu na ña ngay màggal. yu sallu na ña ngay gàmmul. Mm-hmm. yu sallu na na ngay julli fan ci sayyiduna Muhammad ne la malaaka yu sol yaa yu sollu na ala nabi ala nabi la yàlla wax de ala nabi ci waa mm. kiñ naan duñ ko gàmmul mm. kiñ naan gàmm bilaal moom la yàlla gàmmul moom kon ku taxaw di fii bu fi yàlla yemoon mu neex mm-hmm. ah yemut fii déedéet déedéet barke yàlla yemul foofu mm-hmm. déedéet yàlla mënoon na ni inna allaha wa malaykatu yusalluna ala nabi rek yàlla ak malaykaam dajaloo nañu yusalluna ñu ngay julli damay laaj ñiy wax ni gàmmu dafa bi daal nañ ma génneel ñoom nañ ma fexe ba dimbali ma rek génneel ma salaatu boobu yàlla yi wax ban salaatu la. danañ ko génnee buñ ko génnee ba pare. <laughs> lii la ñu war a lijjanti ban salaatu la soo ko génnee ba pare dooroo tere nit ñi ñu gàmmu. wallaay ndeysaan taazim yàlla def. Mm-hmm. joxoon ñu sayyidina Muhammad ni topp leen ko xul ah yàlla wax de atiullah wa atiur rasul mhm. topp leen seen borom topp leen ab yonentam yàlla ci jëm boobu nag di wane cofeel gi mu am ci yonent bi moom ak malaaykaam mhm. yi ñu def assemblée générale màggal yonent bi gàmmul yonent bi moom suñu borom mhm. moom malaayka yi ñoo ko ànd def ko de waaye ngeen ma yemul foofu yemul foofu xam lu yàlla de hmm. yaa ayyuhal lazina amanu eh yéen ñi nga xamante ne da ngeen a am carte membre l'islam waaye sallu waaye dem leen tiwaawan nan ko koy déggee. dem leen dem leen Tiwaawan. <laughs> eh yow murit nga sëñ Touba nga gëm eh demal Touba. Hmm. yow Cheikhul Islam nga gëm eh sallu demal demal Kaolack. moo tax ñuy dem la yàlla wax ci moom. yàlla nee na màggal leen ko julli leen ci moom. lii ma lay wax Assane yi jàng nañ ko bu yàgg. parce que aaya la boo xam ñëpp a ko moom. dëgg yàlla nag lii nag leer na moom. yaa ngi lezina amul. lii leer na nañu oustaz. leerul na dem leen kay leer na demul dem leen leerul. yàlla bu doon moom rek moo julli ci waa ji affaire bi garab. mais daf cee invité malaayka yi ni leen julli leen. Mhm. mere iblis nag mere iblis. moom yàlla. Hmm. Assane bàyyi ngeen ni iblis a dàq jaamu yàlla ci àdduna. iblis mii soof rek a tax yàlla dégaraate ko du dara. Hmm? Ah, yàlla dafa am lu mu bëgg. iblis bañ ni loolu yàlla du ko def yàlla ni ko hmm. génnal sama gouvernement. waaw lu toll ni ñu naan yonent bi saa sallam la ñuy gàmmul. ngay taxaw di. ki ci dem ba Tiwaawan def bàkkaaram yow kooku seen nekku ci. ah dëgg yàlla. wala taziru waaziratun wizra uxraa jàng nañ ko hmm. dama ni. Hmm. aaya bi jarul sax gars yi di guddal. di xóotal di dem ci yenn saar yi di sonal seen bopp. am <laughs> na solo ndax lii. Hmm. ay leeral yu ama am solo la waaye borom projet bii nga xamante ni génnoon na war nañu seen laaj nga dugg ci moom nag dëgg-dëgg mooy kan ak gàmm gi. waaw maam fan la ko tegoo nag fu si tolloo nag. waaw nan la si kii bu ko defee ñu tëjee ko ndax xam naa sëñ Fallou Koumba maa ngi koy teewlu nii saa bu ma kii rek ma xam ne kii na. waaw kay. incha allah Baye Sane. Mm-hmm. Seydi Hadji Malick yàlla nañu ko yàlla fayal. amiin yaa rabbi. moom la doomam ji Alaaji Mansour Bal xaw mi. Mm-hmm. xam nga sa doom. xool sa baay ba mu neex la nga ni kii mooy aynu shariati. Seydi Hadji Malick dama la ci jox ci bayit boobu rek. nga xam mm-hmm. kuy Maodo. dafa ni Seydi Hadji Malick mooy aynu shariati. Assane baqara ba minal jinnati wan naasi amul benn aaya bu jëm Alaaji Malick. Ah, waaw waaw. jàngal baqara ba minal jinnati wa naas yow laay waxal nga ni aaya bii de gëstu naa ko waaye xam naa ni alaaji Maalik doxale na nu mu war toon a doxe ba aaya bi dal na ci kaw maa la wax lii man asan amul benn aaya bu ko jam déedéet la Cheikhu Tidiane Chérif waxoon loolu alaaji Maalik jël ko cheikh dafa ni woon zinu bi maa aqulu fi misaani shariati fa in fa xuzu wa illaa fatruku lépp lu ma wax dam leen xooli alquran su alxuraan waxee man Cheikh maa wax su alxuraan waxul waxuma. je n'ai aucune ambition de faire des miracles. le seul miracle que je souhaite c'est de mettre mes deux pieds à la sunna et à la charia kooku Seydi Hadji Malick ma jot yu def benn miracle sama miracle dëgg ñu ne ko Maodo wax ñu sa miracle mu nu teg sama tànk ci sunna teg sama tànk ci charia mm-hmm. Seydi Hadji Malick nee na miracle am mooy teg tànkam ci sunna teg tànkam ci charia ñu ni nag waaw moom Maodo moom mooy kan alaaji Mansour ni aynu shariati boo bëgg gis sharia bul dox buy dox xoolal sama baay wallaay ki woote gàmmu Tiwaawan laa lay wax de baasan Seydi Aji Malick maam Mansour ni boo bëggee gis xaqiqa buy dox aynu shariati wala xaqiqati boo bëggee gis xaqiqa buy dox xoolal góor gii Seydi Aji Malick innahu na ko moom Maodo yaadil murida day orienté ay taalibeem li xaalisil addiyaani teg leen ci gën gaa rafeti diire mu ne nag kaay ma dimbali la parce que yaa ma bëgg laaj mooy kan maam Mansour ni yow mi bëgg xam alaaji Malick da sonn boo bëggee xam kuy Maodo ñu ni ko naam mu ni damay bañ nga sonn ñu ni ko lu tax nga ni mu ni waaw Sida Malick faal bi ajisi imrin ana addi xataraatul wabl aarul wa fil wabli tajaawidu ku mënta xam toq-toqi ndox yi mënoo xam kan mooy alaaji Malick asam mën nga compter toq-toqi ndox yi. alaaji Mansour mi doomam nee li gën a doy waar sam papa dafa yaru. wa maa alimtu fii ma hadartu siwa ay aameyni min maa in wadaqin kaane yaskaaw nee na dafa to dafa toroxal boppam bakkanam si daaj ma dafa xeex ak bakkanam ba gañe ba gañe ko bu maraan dëgg-dëgg bay naan sax ndox mi bëggul ndox mi neex ba ndox mi da koy jaxaseeg sa yaan ba mu xaw a saf tuuti mu do muy door a naan ndox mi ndox. léegi ni ñun dañuy dem jëndi ndox mu neex. taawam bi mu juddoo la la bàyyi lekk yàpp moom Maodo. ndeysaan. c'est taawam bu jigéen. c'est la mal jigéen la taaw la. Mm-hmm. Mm-hmm. soxna Fatima Toucy. bi mu juddoo laa la wax. Mm-hmm. moom la Seydi Hadji Malick ci jour tuddam. wala ñii ni biir ci juddu ko ci la alaaji Malick bàyyee lekk lax ma te moo yàpp jël léppam jox rasulilahi nee na Muhammad mën na maa guddi la tànk mm-hmm. mën na ma koo gën a yaatule waaye fi ko rasulilahi tegoon laa koy teg ñu ni ko Seydi Alaaji Malick wax ñu ko yonent bi mu ni moo gën a yaru ñëpp Seydi Alaaji Malick ne mm. yonent bee gën a yaru ñëpp wa alyanu naasi qaalu lam yakun abadan bayna sahabati za madd min al xadam Seydi Hadji Malick nee na Seydina Mouhamed mu sa toog ay nit toog muy tàllal tànkam. asan xoolal ñu koy def te woote ni diine la ñuy roy waaw seen yoon nekku ci mu sa toog moo gën a nooy ñëpp mu tàllal tànkam ci biir mbooloo ndax foofu nga yem waa waa waa waa Alaaji Malick dañoo bëgg xam ndax yonent bi bu musaana romb gars yi ñu toog ci banquette yi ndax daan na leen nuyu gars dañuy tent seeni oto te ne unité bi lañ bëgg kat. ñun ñëpp a tent seen oto te koo jox mun rasulullah laa bëgg gaam tuwaan xoola booy dem bi rek koo romb tent na otoom. koo romb tent na otoom koo romb tent na otoom koo romb. léeg-léeg nga taal clim kenn du nekk si ginnaaw du la yóbbaale kenn. walaay ndeysaan taal clim kenn nekkul ci ginnaaw. nit bëgg dee nga ne unité bi bëgg waaye yow yóbbaale woo kenn. Seydi Hadji Malick ni kooku du sama waa ji de ko de. waaw ah, waaw mu jiiba daawati kii xoola jaam yi sax dañ daan woo yonent bi Seydina Muhammad déplacé wu ñëw fekk si leen wa raakiban al ximaar si daaj maa nee na daan na war mbaamam wala nga ne daan na war fasam mhm. fan la jëm mu ne aida zil aw jaay wa sax bi mës ngaa gis kilifa ku ñu ni ministre la wala député la mu jékki-jékki rek damay dem hôpital xool ñu feebar ñi hmm, waaw loolu war dem wàcce sa bopp Mm-hmm. yëg ni poste bi ñu la jox du dara. day kilifa yi noonu lañ war a def di kilifa yi fi ne. ah mais noonu la ñu war a defar sax. tey rek maa ngi lancé appel bi dañu war a dem seeti si kaso yi seen taalibe dem si hôpital yi. kilifa yi war nañoo dem ci kaso yi. Mm-hmm. seet seen taalibe yi nag. wallaay wallaay. waaw waaw kaso ba pourquoi duñ fa màggal rasu guddi yonent bi. yóbbu leen ay nag yóbbu leen xéewal leen màggal leen rasulullaay mm-hmm. loolu moom déwén xam naa ne ku demee ne Aziz Ndiaye war na koo def. ah Abdou Aziz ah yow Assane nag tudd nga jàmbaar. ku demee war naa def loolu yi. Abdou Aziz Ali Ndiaye. waaw mhm. kaso yi. Assane may leen ci nag yi. Assane. Mhm. waaw tudd nga jàmbaaru lislaam. Mhm. wax koo xam ne nag. tariqa tijaaniya yépp a koy bëgge. tudd nga koo xam ni suñu Abdul Aziz Al Amin. Al Amin daa bëgg ci moom ba pare. wallaay dëgg la Assane tudd nga koo xam ni. Tiwaawan gépp a ànd. rafetlu li muy def. wallaay dëgg la Assane tudd nga koo xam ni. Mhm. taalibe Cheikh yëpp a koy bëggee. Mhm. Assane tudd nga koo xam ni. ah def na lu dul fey ba àdduna tukki. Ah, moo fekk ki nga xam ni moom lañ tuddee la na des docteurs du savoir. Mhm. l'hôte de tout l'impasse il est beau il est gentil il donne de l'argent muy Serigne Babacar Sy. mu ne eh, man daal ba ma juddoo ba tey man Abdoul Aziz Aly Ndiaye su ma ñëwee Tivaouane rek damay ñëw fekk barrière bi mu verte dama ko bëgg a changer def ko or. ah gaa yi na ko mënu ko. dama ne Assane kii. Mhm. Abdou Aziz Aly Ndiaye bi def lii. nga foog ni sëñ Babacar dina la seetaan. sëriñ Babacar miy faj soxla yi. Mhm. nga foog ni dina la seetaan man xoolewuma la facette wala visage wala mhm. aspect. bi la sénégalais di xool déedéet. dama la xoolee mbokkum pas-pas. mbokkum pas-pas. mu ëpp doole lépp nag. ah Assane. pas-pas xam naa kii wax ni jàpp na ni naan Oustaz Souleymane li muy wax nii sama mbokku taalibe laay wax. <laughs> te le te nag da ngay wax loo xamante ni dañ see teg baaraam. <laughs> kay waay <laughs> waaw kay wax loo xamante ni. Ah, kay mënoo ko mënoo ko andi benn lay. mais wax la nga teg nga baaraam ku mu mbind la. Assane lu ni fang kenn du ko jeex loolu daa neex di wax loo xam dañ siy teg sa baaraam. mais dafa neex. mais màggal Touba bu jotee mu jël na yi yóbbu Touba waaw. Mm-hmm. gàmmu Tiwaawan bu jotee mu jël nag yóbbu Tiwaawan. Mhm. mais loolu ay nit a koy dundee. te te li si mat a sant yàlla doguma la maam bi ma gisee mu dem jaara jolof li ma gis mu indi ko si ay nag yoo xamante ni dañ ko war a defar toj ko def koy saam bokkut ak xar yi xar kenn ku rek ku ñëw jël xar ku ñëw jël xar. ku ñëw jël xar géttu xar laa mu yeew géttu ku ñëw jël xar. Mhm. ñeneen ñi amuti xar ku ñëw jël saam togg. Tiwaawan gépp mën a togg soos. sant si dinaa Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam nag ndamul al amin la. suñu maam ja xam nga Assane <laughs> mhm. secret bi ne ci mbaax googu mu def moom Abdoul Aziz Aly Ndiaye mm-hmm. laa lay wax mm-hmm. nag yooyu muy yëpp boo jëlee sa paaka dagg ci buñ ñu ko defaree soos bi ba pare mm-hmm. nga jël sa paaka dagg ci jël fourchette bi jam ci nooy def seex gi nga seex boobu ngay seex am nga tuyaa bay darajay moom mi ko def soixante dix prophètes darajay waaw waaw boo ci amee fukki fukki fukki jam-jam nag <laughs> waaw kon ñaata xeetu tuyaaba la am moom. Mhm. xam nga ku koy fayal boppam. Mhm. Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. waaw xam nga nag moom. Mhm. yëg nga ni Abdul Aziz goo gis Seydina Mohamed lañ ko tuddee. ah Seydina Mohamed mës nga xam loolu. waaw koo gis ñu naan Abdul Rahman. Seydina Mohamed koo gis ñu naan Abdul Abdul Aziz Seydina Mohamed koo gis ñu naan Abdul Jabbar Seydina Mohamed. yeneen tudd yee bëri ay tur am na 201 tur damal ci dalaayul xayraat. 201 tur 201 tur la Seydina Mohamed am. Ah, kay mu ngi nii ku baax nga nii. yàlla na ko yàlla defal jàmm nag. amiin yaa rabbi ndeysaan. ni mu bëggee woon sëñ Abdul Aziz Al Amin. nu ko raw la bëggee. sëriñ Moustapha Sy ibnu sëriñ Abdou Aziz Al Amin moo tax ma ni mhm. bépp xéewal boo xam ni nit xéewlu na ko tuyaawan mhm. yàlla na ko ci yàlla defal ci la muy def yàlla na ko yàlla multiplier ay tuyaaba yu bare bare asan gis nga lu baax li ñuy def mhm. ñeneen ñi bu ñu defee lu baax lu dañ koy wax lu dañ koy wax feneen naan diw def na nii diw def waa ah, kii ah, ñun day tuwaagee ku fa def lu baax ñëpp dinañ taxaw gërëm lañ boole ak Serigne Touba mi ngi ko defal. am na ñoo xam ne nit dañoo xaw a rëy si yooyu. dañuy yaakaar ne bu ñu waxee nit lu baax rek. déedéet maam waruñoo wax si baax bu ñu waxee dañuy bañ nit ñi wax leen dara mais lu rafet. waaw ah. boo ko gisee da nga ko a rafetlu sant ba ñeneen ñi mën cee roy. yéen eh, tubee jàngale loolu la sax. ah alhamdulilah kon. def lu leen neex. <laughs> di waxee nu mu leen neexee. ak nu ñu ko bëggee. Ah. te te kat kaay ma wax la de. yéen tubee nee na maanaam yaskuru naas lam yaskuru laa mhm. ku sant nit ñi doo sant yàlla yàlla nee bu la nit defalee lu baax man maa ko def man yàlla ah. waaye balaa nga may sant sant ko wax ba pare baa dégg nga li wax yàlla ñu ne nee bàyyi leen di tëb rek di ma sant man kase man maa ko def waaye maa ko jaarale ci nit sant leen kooku xool yàlla dafa bañ ba ah. boo deewee sax nee na hmm. nañu wax sa lu baax boo deewee sax nañ la waxal lu baax boo deewee la hmm. waxal lu baax uskuru ma xasina ma teg kon Abdou Aziz Aly Ndiaye hmm. ñu ngi koy sant bu baax a ah, am nañ waxtoog nàngam nangam de waxtu ba daa jeex na de. Assane <laughs> kon waxtu wi jeex na. jeex na de de bu la neexee kay mën ngaa joxaat nit ñi daan diw ñu xool nañu defaat. asan waxtaan moom. waxtaan wi comme waxtu wi jeex na. Mhm. naa bàyyi seydaa mu tëj. bu tëjee. Hmm. bu ñu ko fi diggante bi mayee. Hmm. dinaa la wax yenent bi nan la daan séqee géebéer yi jaam yi ca jamono booba. Hmm. xale yu ndaw yi ni mu meloon ak ñoom. dinaa la wax Seydina Muhammad mm-hmm. li góor ñi bari dul defal seeni soxna mm-hmm. asan mm-hmm. man damay dëbb damay neexal sama jabar soxna yi dama leen di neexal ngir lan Seydina Muhammad da daan neexal ay soxna wa taaxinun xaalibun wa shaata muxtaqilun muwakkilun xasibun naxla maal xadami lépp la daan def moom yonent bi waaye teew alaaji maal neen teew ko am fulla dinaa ko tàmbalee kon nag Seyda teew laa am fulla wala naa mm-hmm. Mm-hmm. looy tëjee ba beneen yoon incha allah macha allah euh, di wax oustaz fu muy daanelee noonu dafa am solo lool macha allah maanaam euh, góor ak yërmande gi muy am ci soxnaam comme jigéen ni muy mën a euh, doxalee biir biir këram ba nga xamante ne ni borom këram dina ko gërëm sant ko waaye tamit euh, góor tamit noonu la war a doxalee ak ak borom këram. ak ak hmm. ja soxnaam maanaam yërmande gi ci war comme oustaz mu ko waxee nee na moom day dëbb. Mm-hmm. macha allah comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu lépp lu nga xamante ne mën na ko jàppale soxnaam rek daanaka mm-hmm. daan def mm-hmm. oustaz nee day dëbb kon góor ñi dee leen jàppale seeni soxna maanaam ci ci dëbb beeg fobeere beeg yu sew sewaan waaw saa ñëw sewaan yooyu noonu fa saa ñëwgu na dëbb soye bu na dëbb nañu dëbb daal topp musul dëbb maa ngi lay conseil del dëbb ak kan Fallou Goumbala moom mi ngi dëbb Fallou Goumbala mi ngi dëbb <laughs> Omar Gueye ñoom ñëpp lu ñu xam nga lu tax wa yonent yàlla Muhammad da daan dëbbal soxnaam jeex na loolu kay noppil rek ko daan def wallaay ndeysaan ko def danañ si roy de bu soobee yàlla waaw ah, kay waaye di am waa di am contentement encore une fois ngir dalal ma si plateau bu yanj bii sa plateau la kat waaw sama plateau la <laughs> waa ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp di di nuyu sa Souleymane Diaw hmm. waaye du ñu bàyyi fàtte benn yoon waa Parcelles Assainies unité 2 ñu ngi ziyaar ñëpp euh, lu mel ni famille Cissé bi yëpp waaye famille Badara Fall bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant waaye di nuyu Oustaz Mohamed mbay macha allah moom hmm. tamit euh, ñu ngi koy sant bu baax di ko ziyaar hmm. waaye di ko jox wàccuwaayam bu baax di nuyu nag euh, sama taw bu góor Mohamed Rasoul waaye di nuyu soxna Khadija moom it maa ngi koy nuyu bu baax waaye duñ fàtte benn yoon Khadija euh, Sall ñu ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di ko sant macha allah bëggoon nañu gën a xuus ci waxtaan waaye comme ah, waxtu bi wax lu jub rek si yàlla la luñ fi wax lu dëng ci gàtt xam la mm. di wax asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz Souleymane yow looy tàggu. waa xanaa di am mbégte ak contentement di nuyu nag Seydina Omar Niang Seydina Omar nekk France. ku bëgg Walfadjri ku bëgg Solution TV waaw Seydina Omar waaw tey dina bëgg moom ku bëgg Seydina Mohamed la ndax chaque jour maa ngi dégg da ngay baax li ngay wax ci moom mu ngoog Assane ku bëgg yonent bi rek moo ko man te Assane ku baax la mm-hmm. ni mu ma soppee noonu la la soppee yow ndeysaan ndeysaan ni ma soppe noonu loola soppe yooyu la alazim yàlla rek laa ko soppe soxna Mariama Kan ca Lyon moom tam France mm, ni mu ma soppe Assane noonu loola soppe ñi yëpp dama la ñoo xam ne dañ naan ma bàyyi Assane moom mm. daf ñuy rey xam nga sama yaay kan la sant mu ngoog kon ñoom bu ñu demee Fuuta dañ leen di tuujal tuujal wallaay ndex ah, sant Mbàkke waaw kay sant kan dañ lay tuujal loolu wér dayo am foofu lu wér a wér ngay wax ñu ngi koy sant baat ci loolu nag mm-hmm. di sant nag ku baax Assane mm-hmm. muy Ibou Ndaw Ibou Ndaw jàmbaar joo xam ni. Mm-hmm. di borom këru soxna Botor Sall. ñu ngi dëkk fii ci Mamel. Mm-hmm. soxna Botor ak Ibou Ndaw ñu ngi leen di sant bu baax. Ah, soxna Botor moom beneen affaire la ci dimension waa ñoom nag sëñ bi da nga ñëw soxna Botor moom ndax lépp nag soxna Botor la lépp soxna Botor la Baye Assane heureusement <laughs> <laughs> ba nga comprendre ni lépp nga wax kii lépp soxna Botor lépp soxna Botor la <laughs> parce que tam mm-hmm. eh, noonu mu baaxee seen xarit seen lépp Hmm. mooy suma wëllëre nag di soxna Fama Ndiaye nekk ca France soxna Fama hmm. samay carte bu ma daan gàmmu ji hmm. soxna Fama moo naan Souleymane duggal fii duggal fii duggal fii moo yóbbu carte yi moo tax nee naa ko France googu nga ne kenn mënu laa tee am lu baax yàlla na yàlla defal la lu baax waaw ah, di sant nag di nuyu sama doom di Mouhamadul Moustapha Diaw Mouhamadul Moustapha Diaw waaw sama taaw bàyyi moo ko jur Mouhamadou Moustapha Diaw waaw mais Moustapha. Hmm. daf ñu jaaxal ñun ñëpp. dafa def lu rëy. Mm-hmm. xam nga mu def. xam hmm. ñaari soxna. awa beeg ñaareel bi. awa bi am doom mu tuddee ko Seydil Hadji Malick. mu mag ñu teg ci deux semaines. Mm-hmm. ñaareel bi am doom ñëpp di xaar mu tuddee ko Serigne Touba. Hmm. salon bu mag bi moo am. Mm-hmm. mu dese na fa Seydil Hadji Malick. ak Serigne Touba. moo tax ku dugg moo tax nee naa ko nag ñi taalib taalib yëpp dañuy taalibantu rek. waaye taalibe pire mooy yow Moustapha ku baax nag doom la waaye dafa baax. yàlla ko yàlla fay yiw ci barke yonent bi. amiin amiin yaa Rasulullah ah, baax xam nga ni sunu xol sedd na. jërëjëf parce que loo ñu sant ñu def nga sant. kontaan naa de da baax. man xam nga lu tax. yitte yi mm. li nga nekk si ay yitte. Mm-hmm. bët bu set yaa ngi wal fajri yaa ngi di nekk si mm. gàmmu gi. di si def liggéey bu am solo mais bu ma la ko waxee. Mm-hmm. nga ne ma lu ngeen bëgg ci man ci kër gi dinaa ko def. wallaahi laazim rawatina nag loo xamante ni man sama bénéfice la ndax yonent bi kaay waxtaan ci yonent bi. wallaahi wallaahi loolu rek laay diglu. wallaahi wallaahi wallaahi nga bàyyi san. Mhm. naa xëy na période bi laa ko mën a wax. bàyyi san saa njóogu mbeng. Mhm. yàlla na ko yàlla defal jàmm. ku baax nit ku baax la. nit ku dégg jamono. Mhm. nit ku xam jamono. ku ñu mësaan a gis ñuy def émission boo xamul. da mm-hmm. nga ñii de ay noon lañ. fekk naa naan ma oustaz ma ne ko naa mun ma bu ñu xasee yëg palaatu dañuy liggéey. amatul foo. waaye nit nit ku mën a sonn ci nitam la. Mm-hmm. xam naa ci bu kaf gi baree ni coow li bari mm-hmm. tooñante loolu mën na ne. ndax si kaf la ñu seq. kaf tooñante. muy grand bu ma jox cër te xam na ko. ma it ma jox ko cër mu jox ma cër loolu. waaye li am solo mooy mbaax googu nekk ci saa njóobu. nit day toll foo xamante ni li mu baax le mhm. da nga koy wax ba nit ñi xam ni jullit akkan la nit ko modeste la mhm. loolu moo rogalaat ba ci soib waaye Baye Assane dafa naan loolu moom. wallaay ndeysaan. <laughs> Baye Assane mestre. wallaay taalibe la moom. Mhm. ni saa njóogu baaxee. wallaay rawalaat ba ci sooy bu. wallaay moom da koo naan ñoom ñoo baax ñoo baax rek modeste la moo tax Baye Assane. yow boo ma woon fii ba kiri koro. Ah. parce que Baye Assane Seydina Mouhamed laa lay waxtaan. Hmm. waxtaankat yi gën a xat ci réew mi ci laa bokk. bi lay xam nañ ko xam nañ ko baax a baax a baax. xam nañ ko bu baax. wallaay al azim Baye Assane. xam nañ ko bu baax a baax a baax. pour ma dund ak sama njaboot sax léegi toog ak ñoom. yombutul lu metti la mais bu ma nekkee Thiès bàyyi sax. Mm-hmm. Mm-hmm. temps bi ñu bëgg am ci man sax duñ ko am. ndeysaan sant waaye nag yàlla moo yàlla mottali yëpp. amiin amiin amiin ñi ngi koy sant bu baax euh, di ko gërëm mooy oustaz Souleymane jaw mm-hmm. te di ko ñaanal li nga xamante ni daal loolu la bëgg loolu la mébétal liggéeyal sidina Muhammad yal na ko sunu borom dëgëral ba mu liggéeyal ko ba xam ne ko lii daal laa la bëggoon a liggéeyal ba mu xamal ko boppam mm-hmm. ndax fi mu ne lu mu ko liggéeyal liggéey liggéey danaa liggéeyu ma dara mais nag di ko ñaanal mu liggéey ba xam ne nag liggéeyal na ko nag mm-hmm. ak maamam ju baax ji nga xamante ni xasidaam yi la yor si loxoom ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax daal yàlla na ko sunu borom kartanal ak jigéenam bu baax bii di yaa Sayda sunu borom sàmm leen kartanal leen te yokkal ñu ay xéewal te defal ñu barke si barke weeru koor gi jërëjëf sëriñ Fallou Gumbala yàlla na yàlla dëgëral la sant nañ ko bu baax gërëm ko fii ba suba bu ñu fi doon toog buñ ne ko émission mu ne acca bu xësee xëy si mhm. moo xam bokk na ci moo xam lii bokk ci moom yoonam nekku si moom bu liggéey see nekku sëñ Fallou damay def émission mu ne acca mhm. bu ma noppee damay defaat beneen mu ne acca damay enregistré mu ne acca ba feeg gisatu fi kenn mu doog a tëj dem ñibbi kooku nag nañ ko ñaanal si barke weeru koor moom Serigne Fallou Gumbala yal na ko yàlla sàmm ay ay waajuram sàmm ay soxnaam sàmm njabootam ah, moom ay soxna la am ab soxnaam ab ah, ay ak ab dafa am <laughs> jërëjëf sëñ Fallou Gumbala ab soxnaam mhm. jërëjëf ñu lay sant di la gërëm